وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أهل الفصاحة ترا بسنامها وليس يدرك بالأكواب تيار أهل الفصاحة بسنا مده وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوسين خبروا وكل شعر نور وأسرار فما فمبلغ فمبلغ العلم أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تخيس من عبد الله فلا تخيس من عبد الله بالفضاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى للمصطفى خير خلق الله من سنة لو جل كل الورى حارو رام الورى نيلا رام الورى نيلا فضل المسرعين لا والفضل عند رسول الله خرار كلتا يديا سعي تلازمه بزل وباس لمن لام ومن جار لا من العلم ما لم يحوي بصر أو جن أو ملك wa sadru misxaaru sayyiduna Muhammad lahu min al-ilmi ma lam ya'i basarun aw jinnu aw malakun wa sadru misxaaru fal-ghaysu min sakbi juudil bahri zu xajalin wa laysa xaabin li xawfin minhu farraaru لا من الحلم لا من الحلم ما لم يحوي جبل لا خلص في البرايا وهو صبا mbokki téléspectateurs yi bu ngeen gisee xalima boobu doon jib di xalima maam Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasulullahi ngeen xam ni ñu ngi ci jotaayu spécial tabaski ci TFM religion nuyu bu baax suñu téléspectateurs yëpp ndokkeel leen ci bisu tey bi fekke woon nañu ko daaw ñaanoon nañu yàlla nañ fi yàlla bàyyiwaat ba déwén déwén ñëw na nag màggalaat nañu bis bi yal na nu yàlla may nu fekkewaat ko déwén ndokkeel ilimaan yi ci xutba yi ak julli ndokkeel mboolem kilifa yi fuñ mën a nekk ci bis bi ñaan sunu boroom réew mi jàmm a ngi fi yal na fi yàlla gën a dolliwaat jàmm yàgg ngeen di àndandoo ak ñun nag bis yu mel nii bu jotee télévision bi ubbiwaat beneen bunt pour kenn ku nekk ña nga doon waxal ñàkkul wax nga lu waxuwul fekk du tayeef wala nga wax lu waxuwul fekk fàtte tax wala nga wax lu waxuwul fekk sa bakkana la mën caméra yee la tiim rek nga wax ko waaye xam nga ni waxuwul bi su mel nii nag bu jotee ñu profitoo ci wax leen ni ñu ngi leen di baalu àq ci kàddu yi di leen baalu àq ci comportement yi di leen baalu àq rek ci lépp loo xam ni jaar na fi moo xam sama image ngeen ko gis wala image yu kenn koo xam ni présentateur la wala présentatrice animateur ci télévision bi wala animatrice ku mën a doon ñu ngi leen di wax ni ñu ngi jéggulu nuy bu baax nag kilifa kër gi le PDG monsieur Youssou Ndour ñaanal ko projet yi mu am boole ci TFM religion rëy na yàlla na ko yàlla mottalil ba taxawaay bi nuy xaar te mu ngi ci yàlla may ko mu gën ko mën a taxaw ba télévision bi ñi ko safoo bëri nañ ñi koy seetaan bëri nañ te ku yàlla may nga xas ko miin xëj na dootoo sawar sax seetaan leneen feneen yàlla may ko nag ba mu mën ko yóbbu ci gox-goxaat yi gën a sori ak ci biir ndakaaru fépp gërëm bu baax xale yi ñu àndal ci plateau bi muy ay taggkatu yonent bi di waa kër Maam Cheikh Ahmad Bamba muy suñu ay rakk di sëriñ aatu ak tamit kii daaneel kàddu gi léegi muy Haji Moussa Guèye ñaanal leen bu baax waaye ndokkeel leen télévision bi miin na leen gërëm bu baax directeur bi muy Seydou gërëm ajaa Gagne Siri ci production bi gërëmaale nag suñu caméraman yi nga xam ni daaw ba ren noppaluwuñu ñu ñu ngi ànd ak ñun léeg-léeg ngeen seen yëf yi xaw a changé fekk ñoom ñoo ci dugal seen loxo tabaarakallaahu gërëm ñi ne ci réseau nga xam ne du ñu noppalu ñu ngi orienté fu ne fu ñu toll ngir bëgg lépp jag kon lu ngeen fi seen ñu jag mu jag rek ñu ak ñoom ñoo ko bokk Haj Malik rek nag nekkul ci plateau bi spécial tabaski la mboolem ñi ngeen miin ci kër gi te ñu fi daan def émission nekk fi ba nëgën di ko fi def miin nañ ci ñaari jëmm yi toogandoo ak man ci penc mu ñu tuddee penc mi émission bu tuddee penc mi tabaarakallahu ngeen miin leen ci télévision bi miin leen ci kër gi eh, ñuy ay jàmbaar ñëw teew pour lan ndokkeel seeni téléspectateur jaajëfal leen ziyaaranteeg ñoom ndax liggéey bi leen di xaar bëri na tey bisu julli la xat na waaye ñu nuyu leen balaa ñuy sori Haji Ndonga ñu ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di jaar ci loolu nuyu képp koo xam ni yaa ngi nii bàyyi xel di ànd ak ñun seen télévision TFM religion bis wu tedd wu màgg bi nga xam ni bis la bu nuy fàttali lu bari waaye bis la boo xamante ni it ku mu fàttaliwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttaliwul euh, sa sëriñ bu baax bi nga jokk wala sa yaakaar waaye dina la fàttali yaay wala baay wala mu fàttali la maam boo mu soon dundal ci kaw suuf te tey fekku ka fi. yàlla na yàlla yërëm ñoom ñëpp te xaari leen ci àjjana yu kawe ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm njiitu réew mi yàlla defal ko ko defal ko képp ku nekk ci ginnaawam ñaanal waa kër gi tàmbalee ko ci président Youssou ñaanal ko yàlla na yàlla defal ko xéewal Seydou euh, Gagne Siri ak équipe bi nu àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu ziar leen bu baax di ñaan yàlla na yàlla may nu euh, ñu fekkewaat ko déwén di jéggalu ñëpp incha allahu rabbi euh, Hadji Malick loolu mooy kàddu nuyoo bi. Euh, Hadj Malick maa ngi lay fay. Uh-huh. waaye di nuyu Oustaz Ndong bu baax. di sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaam. Uh-huh. waaye di sant sunu yaakaar. Uh-huh. sunu Serigne Cheikh du Bamba. tey ñaan Serigne tubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool. te ànd ak wér. waaye itam di ko ñaanal bu baax Serigne si Sy suur mi nga xam ni. mooy xalifa sunu kër maam Cheikh Sidi Hadj Malick ñaanal ko waaye dem ba Njaasaan sunu kër maam fekk fa seexal bekkaay mi nga xam ni tey jii mo moo moo toog toog ay maamam Cheikh Abou Mouhamad nuyu ko moom it ndokkeel ko waaye nuyu Serigne Cheikh Madi Tidiane Seck mi toog toogaayu sunu kër maam Amari Ndaak nuyu ko ndokkeel ko waaye nuyu Serigne Cheikh Madi Tidiane ñas mi nga xam ni moo toog toogaayu sunu kër Baye Cheikh al Islam waaye nuyu na Omar Bachir mi nga xam ni moo toog toogaayu sunu kër maam Cheikh Omar Foutiou Tall nuyu Serif Aye mi nga xam ni moo toog toogaayu sunu kër maam Cheikh na Cheikh Sadbu waaye nuyu waa Casamance waa Banguer kër Serif Maxfu waaye nuyu tabarakallahu ah ñi sant suwaani ñëpp te nekk Casamance ndokkeel leen ci bis bu mag bi nga xam ni tey mooy tabaski waaye jéggulu leen waaye ñaan yàlla gën leen a yàggal itam gën leen a wéral alaaji Malick ñooñu ma tudd bu nu fi yàggee daal dana baax ndax ñooñu ma tudd kenn ku ci ne ah am na ñu nekk ci sa gannaaw yaakaar la te di la déglu te alaaji Abdou day wax nii ah gaal gi moom ñaanal gaal gi mucc rek bu mucc rek ki ci gaal gi dana mucc. macha allah kon nag nuyu bu baax la président Macky Sall moom it ndok ndokkeel ko ci julli gu rëy gi nga xam ni julli na ko grande mosquée ànd koog euh, imam euh, Sam mi nga xam ne tabaarakallahu ci xutba bu am solo bi waaye nuyu itam. première daam ajaratu Marième fay sal waaye nuy itam Youssou Ndour seydu Seydou nuy ñëpp ndokkel naa ñëpp ci bisub tabaski bi yaakaar naa ni tey xari moom xawata sonal gars yi ndax lakk gi moom fi ne ni moom ah sama waa kër nag ci Tiwaawan man nuyu leen ndokkel leen ni soxna si lakk gi fi mu ko lakkee tabaarakallaahu ba ci kanam Cheikh Seydi Hadji Malick nga dul ragalal yàlla waaye première dame na ko bàyyi taay dafa mën tuddatoo ko léegi de première dame première première ëpp naa bañ a kooku nga xam ni mooy mooy mooy servir le Sénégal. ah d'accord. nga xam ni moom yitte. doomu aadama yëg ko ñor. joxe na xar yu bari dégg na. ah waaw. agsi na ci yow. ah agsi na ci yow. ah première dame di joxe na waaye nag man moom <laughs> xar mi ma tabaskee maa ko jëndal sama bopp. Aladji Ndongo Laye <laughs> eh, ngi lay ndokkeel. Aladji Ndongo xam nga ni tey am na ñu nekkul ci jàmm. benn ñu ngi tëdd ci lal hôpital. ñii ñu ngi prison caabe ngi leen féete ginnaaw. am na ñoo xam ni yaay yëg ni tey la tabaski mais ñoom yëguñu ko lan nga yëg tey ci tabaski gi ak lan mooy sa kàddu ziar bu jëm ci tabaski gi ndokkeel sa téléspectateurs yi ak yóbbante boo leen war a wax waaw lu jiitu loolu ñu ngi ndokkeel ñëpp ci bis bu tedd yi jiital ci sunu xalifa Seydina Baye Abdoulaye mu ñaa ñaan mu yàgg fi ci ànd ak weer mhm. Seydi Maam Libaasa xutba bu rafet bi ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla defal ko xéewal ak kilifa yëpp ñu ngi leen di ndokkeel Euh, bis bi yëg-yëg wi nu ci am mooy wane ni tabaski dafa diis neex na alxaj Malick mais tabaski lu diis la. dëgg la ndax lan. li tax mu diis dafa bari lu mu ëmb ndax tabaski yàlla dafa dogal mu yàgg fi. Mhm. te ñun yàggunu fi ni mu fi yàgge mhm. yàlla may nu ci dogalam defal nu loo xam ni ñun mënaluñ ko sunu bopp mhm. ku ne xam na ni yahdi alayna wala yuxda alayhi mhm. yàlla mooy dogal ci ay programme am mais kenn sañuta dogal dugg ci programme am mhm. bu nu yàlla mayee tabaski ñun mhm. ba muy am judduwunu mu yàgg fi lool ñun ñu juddu bokk na ci li mu diisee jamono ji mu tombeel ci ñun xam nga sama maam Serigne Touba dafa ni haza zaman axbaxu zaman jamono ji moo gën a yées ci jamono ji si musa am li kasratil asiyaani fil buldaan mhm. ngir mooy gu bari gi na bi waxoon na ni inna zamana ixtalaba waxtalata wa zalika fanaun mhm. yéen a ngi dëkkmal àddina goo xam ne dina yëngu ba lu baax dina fekki lu bon lu bon dina fekki lu baax mu ni waaye bu ngeen tolloo foofu xam leen ni jeexitalu àddina la ñu ngi toll ci jamono joo xam ni tabaskeeg nu fekk ci yërmande jeex Hadji Malick jeex dafay jeex dafa jeex wala dafay jeex. dafay jeex lu tax muy jeex. li tax muy jeex mooy nitu démb bokkatul ak nitu tey xam nga nabi dafa ni wallahu fi awni al abdi ma daama al fi awni aqihi mag ñi bu njëkk dañ daan dimbalante ci bis bi. waaye tey jii nii Hadji Malick boo ubbi woon sa téléphone dina bari ñu dugg ñoo xamante ni nii am na nu métti ci bis bi am nañ ci coono te bokk na noo ku leen mën a taxaw te defu ko. allahu akbar. kon diis na ci ñoom. metti na yit nag ci ki am metti na ci ki ñàkk élage lu tax ki am day joxe ki ñàkk day laaj. mais mettit bi nag ci ki ñàkk la gën a féete. la gën a féete. Mhm. parce que ku ne xam na ni ku sañ ku sañoon bokk ci group bi joxe. Mhm. waaye doo bokk ci groupe bi laaj. kiy joxe metti na ci moom ndax ñëpp dañ koy yaakaar. Mhm. ki amul it metti na ci moom ndax day dem uti. te dina boole dina am ak duma am. dinañ ma jox ak duñ ma jox. Mhm. dinañ ma teral ak dun ma teral dinañ ma jànni wala duñ ma jànni. nga wax ci lu am solo mooy bokk na ci ñu tëdd ci lalu hôpital yi. tey am nañ malaat yoo xam boo leen ci hôpital fii ñu toll ñun la fees nan. ñuy dem ba lal yi day fees. Mhm. kon am na koo xam ne mu ngi dans le coma ba nga xam ne xamul ni tey tabaski. mais tey am na ku ko yëgul. Mhm. kon mag ñi daan daan wax ni fekkee neex na mais tal moo ko gën. man nga fekke te doo tal tey am na ñu fekke tabaski bi ñu ngi ci kaw suuf mais talunu ko am na ñoo xam ni seen xarit jënd seen xaru tabaski mais ñu ngi tëdd fi nu tëdd rek mënuñu sax jug fi nu nekk mais nga gis ni da ciy jàng ni yàlla dafa am lu muy maye xam nga dafa am ñaar yu jar di sàkku muy muy muy muy muy muy wér ak jàmm wér ak jàmm waaw waktub siqata wa salaamata wa afiyata alayna loola mag ñi daan ñaan waalal xujaaj wal musaafirin nga xam ne kon tey ki aji makk jàmmala soxla ki fi nekkit jàmm la kon Haji Malick bokk na ci li diisal bis bi mooy ki nga xam ni amul te bëgg na ak ki am te ñi ko yaakaar lim yaakaar ci moom xajul manu leen matu matewu leen day mujje sax fatu parce que li mu yor ku mu ko jox ku nekk bu ko séddalee ñeent fukk yi ko soxla kenn ku ci ne li nga ci am du la mat te amaana mu defal la ba pare nga tourné xas ko parce que day da ngay jàq-jàq goo xam ni dangay ngay da ngay dund loo xam ni yàlla rek ko ko xam mhm. mais ñu xam ni yërmande mu ngi jeex mhm. ndax bu jëkk nit ñi amoon na nañu yërmande ba dina dinañu yombale lépp xam nga Xaaji Malik xaru tabaski yi ñu doon ut fan yi yëpp mhm. bu fekkoon ni ñu dul jullit ñoo koy jaay ñun ñëpp yëg ne xari ren cher na bu doon ñu dul jullit ñoo koy jaay dañ naan dañuy xeex islam moo tax mu cher. dëgg mais yow. mi ko soxla man ma soxla ko. jullit moo na ko war a jaay. Mhm. mais gisatul yërmande. Mhm. gisatul ni kii sama mbokk jullit la bu soxla lu ma yor. teretam la. waaw kay. day defaru day defaru. Mhm. jaaykatu soble ba yokk na njëgam. jaaykatu pombiteer bi yokk na njëgam. kenn ba ci paaka yi ñu yokk njëg yi parce que léegi dañ dem ba li nga soxla sa moroomu jullit moo la ko war a jaay. mais mu ngi la ci teg loo xamante ni yow ci sa bopp dangay am problème ndax kii jullit la kon ñàkk yërmande googu nga gis ni jaaykat sax daan na gis ku bëgg a jënd mu xam ni kii manqué le na mu jox ko xaar kenn ngir bu amee mu ñëw mattali ko xaaju ndongo xam naa coono yi day ñun ak yow yéeg nañ ko mais communicateur yeeg yenn géel yi moom ñoom seen affaire baax na de ay ñaari xar ñetti xar ñeenti xar soble saaku yeeg pomme de terre saaku yooyu moom amu leen problème euh, président El Hadj Malick jërëjëf bég nañ lool waaye oustaz ñu ngi am mbégte bu baax. waaye ndongo la kii moom bu waxal ci li ma la wax yéen du ngeen jënd xar du ngeen jënd ay du pomme de terre du ngeen jënd dara lépp dañ leen koy jox. ah. réew mi yow kër gi sax yuusu joxu la wala. ki sawaay woo la kenn woo la jañ woo la wala wala wala euh, Seydou directeur. xam nga yéen da ngeen am bayre de yéen da ngeen am bayre de yéen da ngeen am bayre. tabarkal tabarkal la allah <laughs> El Hadj Malick El Hadj Malick fi neen bul yaakaar ni ma xëy walla ñu bari fekk ma fa ma dëkk naan ma soble seeg lenn li seddunu ci ah El Hadj fi réew mi toll xam nga bërki dem ma Marème fay Sall ci biir laata ñu julli rek hmm. dem na ci prêt-à-porter dugg fa hmm. am lu muy jënd hmm. waaye ba ko fa nit ña fekkee fa daw waxuma la daw waaye police ko jël si ñoo ko dimbali ndax réew mu metti allahu akbar oh El Hadj réew mi fi mu toll waaw te yéen di ngeen yëg lu bëri nag yéen ah mun ta ñàkk yéen ñiy wax ak yéen dañu bëri ndax fi ne ni moom mhm. léegi-léegi ñu seen la ci télé bi nga génn <laughs> waaw waaw ndax fan yii seetu bi ñu ngi joxe loo xam ni léegi-léegi ñu génn ñun am kun ni kar daan lool loolu bu ñu ca fàtte loolu nag ah bi tabaski bi jàllee xaw na noo xaw na noo nopp tuuti ndax léegi-léegi sax dangay doo doo doo bëgg a taal sa téléphone ndax bis boo ko taalee at bu tukki. yow yow tabaski gi yëgoo coono bi li ma xam naa ko. damay bañ laal nag fi bañ ma laal ko. hélas fi ne nii fi ne nii bëri na gaa yu yu yu nu fëgg ji ñoo xam ni wala wala ñu la daan yónnee ñu ci bëri dañ lay teel a ah am na ci ñoo xam ni seen téléphone da ngay woote waa sonn. waaw fan yi boîte vocale dafa fan yi moom passé boîte vocale dafa yomb. Hmm. comme que tabaski bi jàll na ci jàmm. Hmm. lakk na nu xar hmm. am na lu nu ko toggee. Eh. <laughs> sant yàlla. waaw ñun moom fi ne ni moom bu nu gaa yi joxee daanu lakk mm-hmm. bu nu gaa yi joxul daanu lakk macha allah waaye nag mm-hmm. Mm-hmm. léegi-léegi nag am ci ñenn ci ay communicateur waaw wala ñun tuddee ay giwél ah léegi-léegi nag ñu yëg loo xam ni nag dëgg dëgg dëgg dëgg daanu am ay xar waaye daanu am i soble daanu am i pomme parce que yéen parce ñoom dafa mel ni joxe bokk seen vocabulaire ñoom jël la ñuy seen pratique jël moo gën a yomb. hélas nag ñoom ñoo dàq joxe di. Ah. ñoom ñooy wax ak ñuy joxe di. Ah. ñooñu di jël ñooy ñooy ñooy ñooy wax ak ñuy joxe ndax fi ne ni boo ñëwee ci ñoom. Ah. diis diis diis leen. mais Modou ku ku ku koo xam ne ci ci ci laaj rek affaire yooyu nga mën cee regle ba mën ci jox lu mat ñaar fukki nit. waaw xam nga xam nga dafa am loo xam ni. sañ sa jesner bu baax. ah, ah mënut a ñàkk joxe ay jesner. mënut a ah. ñakk xam nga. xam nga waaw xaj ndongo réew mi ñoo deful fi ñu war a def wala tamit ci la bokk. ah Oustaz Ndonga. waaw taalibe fi fi ñu war a def ñu ngi koy def. ndax géwél bu njëkk ak géer dafa am nu daan ànde El Hadj fi ne daa bëgg a yàq liggéey bi te duñ ko nangu du ma bàyyi mukk ngay tontu lool ndax fi ne nii wuyu ma Oustaz El Hadj El xam na xam yëg na ni sunu yaakaar Serigne Touba li mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg ko tagg goo xam ni waaw ah tagg googu du ko mais yow boo sañoon tabaski moom 6 mois bu ne ñu tabaski man moom day 10 man bu ma sañoon par 4 ans la ñu tabaski mais yow moom boo sañoon 6 ans ne tabaski bu fekkee ni kii loxoom di ñëw man na ko 6 mois bu ne muy ñëw <laughs> bu ma sañoon nag 6 bu ne ñu tabaski <laughs> mais tey ci julli gi looy looy ndokkee li nit ñi xana xana xanaa xanaa di jéggule rek ak di bàllu xaq ak ak ak ak di baal ñëpp ak émission penc mi ñu lay seetaan waaw penc mi waaw nga xam ni émission bu rëy la nag waaw ndeysaan boo xam ni vraiment ñi koy suivre bëri nañ te li ci gën a am solo mooy ni ngeen ko doxale léegi mhm. mooy di waxtaane diine mais actualiser ko nag ba nit ñi mën di ci jëruñu ngeen wàcce ko ba ñëpp di ko di ko gis waaw ndeysaan am na solo euh, trop euh, euh, bërki dem rek mhm. laatu ñuy julli mhm. émission yi nu mujjee wax def maa ngi ci wax ak yaa Seyda ak oustaz mi ma leen di wax ni am na ñoo xam ne ay kilifa lu waaw daawuñu seetaan waaye bi ni seeni penc mi rek mhm. toog nañ di ko seetaan ndax yeete gi am ci biir mhm. ak ni nga ko waxee nga xam dañ ko boole actualité nga xam ni yeete bu am solo mu am ci biir mhm. nga xam ni eh, liñ bi nit ñi ni ñu duggee da xam ni nit ñi penc mi yitte na leen parce que ndo euh, kii mbuur bu waaraate yàgg na fi mais bu jamono di dox mbir yi dañu war a indi yeneen touche yu bees du tere nii diine doon waxee rek ñu waxee ko mais soppi waxin bi nag pour mën a dëppoog jamono bi. waaw lool loolu dafa am solo. ndax nit moom boo koy jàngal bëgg mu mokkal. dafa am façon booy defee. yoon wooy jaar yoon woo. parce même communicateurs yi léegi dañu moderniser mbir mi. bu baax communicateur yi dañuy sañ si lu rafet. waaw léegi moderniser nañ mbir mi. waaw ndax communicateur bu ci dem. Mhm. ci sa kër géer. Mhm. meloo ni nga war a mel. Mhm. seen Serigne Cheikh di Tidiane dafay wax ni. Mhm. nit ñëpp la bëgg waaye ki ko ci gën a nite moo ko gën. Mhm. Serigne Cheikh Moussa ni génn dem fen mhm. bu xoolee xa xam ni yow mii da ngaa xëye di fonkoo sa bopp bëggoo sa bopp. du la dugal ci otom ba day seet ku nite. ku xam boppa mu ànd ak moom. yéen bis yu mel ni tey jii da ngeen di dem ci seen nit ñu baax ñi. wala jot ngeen a dem ba pare. waaw waaw moom kay fi ne ni moom tabarkal tabarkal. alhamdulilah mënut a bi day bisu diine la. mais daanaka aada jee ko jël léegi boo seetee aspect diine bi amatul solo mooy nit ñi fi ñu daan sonne mag ñi fi ñu daan sonne ñi nga xam ni diine leen ñoo fi ñu daan sonne léegi aspect diine bi jóge na fi parce que bu njëkk ku amul xar danga daan naan man awma xar damay noppalu mais xam nga bisu tey am na ku may seetaan waxtu wi moom mi ngi mi ngi mi ngi defar na lakkam wala mi ngi ci soog a jot wala nu mën a tëdde mais xam na ni bor topp na ko li ko indi nag mooy benn waaye sax dégg naa ko day wax naan léeg-léeg sama dégg ko ci daa yi mooy doaat yi waaraatekat yi ñu wax ni euh, ku amul na nga bàyyi mais ma dama jàpp ni société bi tollatul foofu li may wax daal man te ko daan xalaatal nit ñi ci avant julli gi mooy dama naan ku mën a lijjanti lijjantil parce que tamit sa njaboot boo bawee rek keneen fawee leen te jamono bi toll na foo xam ko aspe diine bi booy seet bu dee 100 la woon jóge na ci léegi aada bi moo gën a boo demoon waa bi ñuy waajal tabaski nga romb ay marché HLM wala Sandaga wala dem ci marché yi yaa ngi fekk jigéen ñoo xam ne tabaski wuñu te ñi ngi jënd greffage buy jar trois cent mille jënd yére buy jar cent mille te tabaski bi nekkoon sunna ñuy mu kallaf defuñu ko donc en tant que religieux bi nitu diine bi loolu boo ko gisee tey lan lay lan lan lan ngay xalaat yow ngay jàpp ni yëf yi mi ngi raaf comme ni di yërmande di demee mhm. wala ngay jàpp ni aada dafa mën mën diine toog ci kawam mhm. waaw euh, aada bu manul diine jekku na ko. war na ko ndomba waaw na ko ndomba de jekku na ko. parce que tey <laughs> wallaay war na ko ndomba parce que am na ñoo xam ni. Modou lay onk. Amadou d'accord nga. <laughs> am na ñoo xam ne ci jigéen. pour ñoom eh. waruñu julli ji. waxtu julli ji. ñoom ñu ngi xolli sople wala toog def nangam. Mm-hmm. ñoom pour ñoom julli gi góor ñee ko moom. Mm-hmm. ñoom génn nañ ci seen bopp. Mm-hmm. te loolu war nañ delluwaat ba xam ne. mais sañse yi ci seen bopp. déedéet li ñuy sañse góor ñi am. déedéet mhm. parce que période boobu ku ci sa bopp pare na. Mhm. sa ñaw pare na. comme tey nii. comme tey jii nii. Mhm. nga gis ni tey bu ñuy julli. même dem na ba ci tailleur bi léegi nag dootul julli ji. tey boo doon tey julli bi tey soo doon wër di laaj tailleur yi julli. du bari. mais commande yi ñoo bëri nag. waaw commande yi moo bëri commande yi moo bëri. loolu am na moo tax ma ni la dafa am loo xam da ko wër ndoom. xam nga loolu solu la bokkul tey buñ doon wax ni tabaski bu nuy wax liñ ciy fay li ci yàlla di fay ci nit ki ci li mu fi def dun ku boo solee yére bu rafet am nga ci nàngam ci yiw kon léegi tey ji solu boobu tey dem na bu dugg bi mu duggee indi na coono parce que tey ji li nga wax rek li nu sonal ndax yàllaa nu ko teg wala ñoo ko teg sunu bopp parce que dafa am sama ak sunu bu jëkk da ngay dugg benn kër kilifa gi dina dajale njabootam ku ne li nga am mu wuti xar bu mag ñu teg ko muy xarub kër gi mais léegi foo dugg kenn ku ci ne ak sa benn xar léegi yow tabaski bi li la yitteel ci xar bu mag bi mooy après parce que tey kenn ku ci ne dafa mel ni yow rayuloo pour jaamoo ko sa borom dafa mel ni ndong bul ragal loolu moo am waaw Uh-huh. loolu mooy dëgg nit ñi bisu tey bi uh-huh. affaire aadala la ah, wax la wër na ko ndomba waaw te sax daanika mbotti na ko waa xam nga boo jëdee baatu dafa mel ni am na xam ne boo ko laajoon am na xam ne tey boo leen fekkoon ci kaw jigéen ñu toog sax boo waxee ñu la mm-hmm. saaku soble la doo ci mën dara d'accord mm-hmm. ndongo euh, moor ndewenal moom ci tabaski la bokk waaw déedéet ah tabaski ci tabaski la bokk ah damaa gis duñ fee di fekk fi ndewenal li ma jàpp ni ci tabaski la bokk di wax fi ni moom nga nga nga jóg dem naa ni ndewin ni eh. ñu nuyee la loo xam ni eh. ah am na ñoo xam ku bëgg dindi ndéwénal ci ñoom eh. boo moytuwul moom bu tabaski bi day ñëw moom ñu jëlee la ñaanal la nga jóg waaw ndeysaan ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi am mbégte bu baax uh-huh. di kontaan mm. uh, di di di di baalu xaq ñëpp ndeysaan di wax uh, na ma ñëpp bal xaq mm-hmm. bal naa baal naa ñëpp ak yàlla nañu ko fekke ay at yu baree baree bari amiin amiin waaye maa ngi nuyu bu baax sama xarit kenn ci man mm-hmm. uh, muy président Cheikh Alassane Sène mm-hmm. maa ngi koy nuyu macha allah te ku ne xam sama diggante ak moom ndeysaan ndeysaan euh, muy ku baax di ku bëgg yonent bi waaye tamit du nuyu bu baax mm-hmm. euh, Serigne mm-hmm. Baara mm-hmm. moom Serigne Souhaïbou moom it am na fu mu jaar ak man ci tabaski bi Serigne Khalil moom Serigne Cheikh Daaru Rahman am na fu mu jaarak ak man ah barki mu ci àjjuma ji damay julli àjjuma ba génn mm. benn directeur tele télé mm. ah mu fekk ci jumaa ji mm. moom mu ni ma Moodu ma ni ko Mbàkke mu ni ma nuyool ba noppi nga ñëw ci man avant ngay julli la la ko wax julli ba noppi bay ah, génn fekk ko mu toog mun ma ñi nuyu leen ba noppi hmm. nga ñëw ci man waaye nuyoo ba nga nuyoo ba ah dama ko def noo xam ne rek gaaw rek ngi toog ci wetam bi ma ñëwee toog daal mu yëkkatu lu am solo uh-huh. muy papa Sadio di ko baax ah, di jàmbaar waa mit moom it moom it ñu ngi koy sant waaye waaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen yëgal ni nag uh-huh. ah, buñ tabaskee ba ca suba sa bisu tabaski tey ah talaata uh-huh. am na sargal bu ñuy def muy sargal Cheikh Seydil Hadji Malick ñoo ngi koy defee ca Tiwaawan alhamdulilah ca saalu Serigne Babacar Sy d'accord Pape Moussa moo koy amal mhm. ak Elas Mbeng jërëjëf euh, Abdou Aziz Mbaye mhm. Doudou Kenn mhm. Ahmed Sarr Souleymane Ba ñoo fay ne macha allah yeneen gars yi yëpp invité nañu ñëpp nee neen vingt ku ñëwul doo am fa toog yal yàlla man nag soppa yee xarit yëpp nan ma fa fekk maa nga fa ndokkel naa leen ah incha allah rabbi ndeweneel bi nag Euh, xam naa ne tabaarakallaa bu ma génnee ci tali bi rek mhm. ku ma ku rek mhm. am naa lu ne ci poos ma jox la ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw li ñuy mhm. ñuy déglu ala ñi nga xam ne bu dool bis bi tey sax yàgg na nu déglu te àq dafa sew dëgg la te yonent bi dafa daan wax ni wa kullu zi xaqin yuxazu xaquhu yowmal xiyaam koo ameel àq di nga ko jox yowmal xiyaam ñu ngi baalu àq ñëpp ku nu musa tooñ wala ñu wax wax joo xam ni yëg nga ni wax ji daal euh, gàncee ngi ci wala juumte nga baal nu te jéggal nu te xam ne nit dafa matul ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di rafetlu jotaay bi Achmari ñu ngi lay dellu sant bu baax gërëm la euh, mbuub jërëjëf ci kaddu yi macha allah ndéwénal bi moom dana bàyyi nga jox ko keneen mm-hmm. ñun ñu ngi fi nga jox nu ko ñu passé nga ñibbi ndax bisu tey tabasi ku ne xam na ni taxi yi dañuy yokk lépp delluwaat ci kër yi dafay metti waaye maa ngi sant bu baax Aline Ndiaye nga xam ni moo ñëw li yónnee ma ko koy sant bu baax gërëm ko euh, numéro am di 77 301 89 53 mu nekk Diamalaye Couture ah, euh, moom it maa ngi koy sant bu baax gërëm ko waaw incha allah dina <laughs> ko boole mbuub. <laughs> ayca <laughs> jërëjëf kon ñu ngi jéggalu ñëpp di. baal wax yàlla fay leen. barakallah atu ayca. عن فدا فدا ذاكرا عبل الوداد كل المراد من الله من فدا بلا كرام وقل زرع خير العالمين عن غزيان كسب سيدنا محمد وبخلال خلع ثريا قن تابا قل الكتاب وقد زراغي متبع يا سلسلة يا خير رب يا خير رب خير المراب واو يا رب العالمين يا مراب خير المراب أنا مصطفى صل وسلم صل وسلم على المتمم على المتمم waaw waaw amina bamba salli wa sallim halal mutamim halal mutamim halal mutamim wa kullu ya belande falu batin barayna ganal ya fenna safalu batin barayna sarifal lino ya fenna gën alu nga neenu yàlla la baati ma rey na nga neenu yàllu na baat ma rey na tegal na soppu sëriñ kawel na kaw la kawel na kaw la wér la jeewa waaw waaw alay lay la na kawel na kaw la wér la jeewa wér la jeewa dëkk ci réew mi lu garal baayu benn garal na gawrax te dañuy waa di ñuy waa da ko ci réew mee te mas la yoxi yoxi ba del si Tuuba lu baayu mee te mas la yoxi amiin mas na yokk yokk al ne si Touba yal na yàgg Touba te mën na yokk yokk soxna Cheikh Mountakha al ne si Touba yal na yàgg Touba amiin mas na yokk yokk Cheikh Mountakha al na yàgg Touba te mën na yokk yokk dañu Touba ah atu yow moom tabaarkalla tabaarkalla spécial tabaski bi daal xam naa ni eh, choix bi moom dëgg-dëgg tegu na ci yoon way leer na air bi neex na lépp mat na yal na yàlla dëgëral sa taxawaay bég nañu kontaan nañu baax gërëm bu baax Haji Ndongo mi fi toogoon sànq ak euh, Modou Mbuub comme ni ma ko waxee ñu ngi ci télévision TFM religion spécial tabaski heure bu événement jotee rek télévision bi ànd ak yéen ci yu mel nii wettalante ak yéen euh, moo tax ñu toog fii ci ndigalu kilifa yi di amal jotaay bii Euh, dalalaat nañu ñeneen ñaar ñoo xam tamit comme ni ma ko waxee rek démb rek ak euh, tabaarakallaahu sax mën na amaat tey euh, suivre ngeen leen ci kër gi ci seen jotaay bu am solo bi ñu def démb ci Arafat àndandoo ko ak ñun muy al imam Touré ak al imam Haj Malick Guèye Haj Malick Dieng nga xam ni tabaarakallaahu ci kër gi lañ nekk Haj Malick Euh, spécial tabaski ñëwaat nga ñu nuyu la alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi algurri almayamin wattaabiciina wa taabici taabicin wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokki téléspectateur u TFM religion yi ci biir réew mi ak yi ci biti yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar bu baax tabaarakallaahu di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp Haaj Malick di la nuyu bu baax a baax a baax di nuyu al imam Touré tabaarakallaahu ci jotaay bi ñu amalati ni ngeen di démb ñu ngi fi woon tabaarakallaahu waaye tey tamit di bis bu magg ñu koy tuddee iidul adha ñenn ñi di ko wax iidul naxri boo ci wax baax na tabaarakallaahu muy bis bu am solo li may faral di wax ne jullit feet bu mu am moo ko créel boppam ñaari feet la jullit am mhm. mooy bu tay bii ak iidul fitri mooy bisu korite ak bisu tabaski mhm. waaye beneen bu fi nekkati yaa ko créé mhm. ñaari feet yooyu benn gënul see rëy tabaarakallahu ñu ciy baalu xaq di profito di baalu téléspectateurs yi nga xamante ne bii ne ñoo nekk ci biti réew mi ak ci biir réew mi di profito tam di baalu waa kër gi yëpp képp koo xamante ne bii nag yaakaar nañ ne si àq dox na suñu diggante yàlla ñu yàlla boole jéggal incha allah ki nga doon déglu léegi mën na way macha allah mm. tabaarakallah way tegu na ci yoon maxaarij bi tegu na ci yoon daaj bi ñun xamuñu ci daaj lu bari mm-hmm. waaye boo déggee lu neex moom boo ko déggee rek wala lu tegu ci yoon sa xol moo koy nangu sa damir moo koy nangu te nga ànd ak ngañ bay waaw waaw ngañ sama xarita <laughs> waaw xëy na looloo tax sax ma xam ne mbir mi neex na <laughs> tabaarakallah way macha allah imam Cheikh Touré al imam al mufassir ñu ngi lay nuyu ci ay jotaay bi spécial tabaski asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu wa sallama ala asrafil Seydina Muhammad ibn Abdullah. ñu ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñu siifre yëpp ci àddina bi. Mm-hmm. di jiital suñu nuyoo bi yooyu suñu xulafaaw yi ci biir réew mi. Mm-hmm. ndax am nañ solo bu baax ñu ngi leen di jéggalu rawatina sax ñun ñi nekk heure bu ne. Mm-hmm. ci alquran di jéem a nat nati ay borom xam-xam la ñu ngi ñuy déglu. ñu ngi leen di balu ak bu baax a baax. gannaaw loolu may nuyu suñu mbokk mi alaaji Malick borom alxuraan ju neex ji ñu ngi koy nuyu bu baax di la nuyu yow itam borom xam-xam bu rafet macha allah di la ndokkel di la balu àq ci tabaski gi ki nga doon dégg sànq woyu neex na macha allah mën na woyu bu baax alhamdulilah neex na ñu ngi ci spécial tabaski Haj Malick euh, imam Cheikh Touré ku toog ci télévision ren ba déwén te nee na ñu bëri dañ yaakaar ni ndam la nee na animatrice bi animé ci wàllu musique mën na am ndam kii animé ci leneen mën na am ndam mais ki bëgg a toog ci daara ji moom na yëg ni moom piège la ci piège la nekk parce que dana am ñoo xam ni fii da nga atte masala rek ñu génn ci sa xam-xam ne dootu ñu dégloo ci sa xam-xam ndax benn masala xam nga suñu réew ñoo mel noonu yàlla daf leen natt ñu ñu gaaw a gedd nit su nit nekkee ci télévision di firi alquran wala nekk télévision di def comme ni ngeen def di waxtaan ba at mu jot war nga baalu àq ñi nga jàkkaarloo mais balaa ngeen a joxe baalu àq geeg yooyu euh, tabaski bi Haj Malik iidul adha wa iidul fitri nga wax ñaari feet yooyu rek la ñu am xëy na bu ñu ci dolli àjjuma lay doon mu nekk feetu semaine bi mm-hmm. mais feet buñ ko waxee mooy ni ko Sénégal di defee comme tey jënd xar mu mag ñi am yeneen ñi jënd xar mu yam ñeneen ñi jënd tàpp ñeneen ñi jënd bëy xëy na boo demee bëy bu ma ko waxee teeru bi taxul mm-hmm. parce que teeru bi amul loolu capital yi pratiquement amuñu loolu mais boo demee ci àll bi di nga yëg ni béy dañ koy tabaskee am na ilimaan yoo xam ni yu ma xam man laay wax yoo xam ni ñu ngi ci àll bi ku ci am siket bu baax da nga koy yeew ca kanamu jumaa ja tëral ko wa sharafil quran est-ce que nii ko Sénégal di defee comme ni mu demee tey nga xam ne am na koo xam waxtu wi mu ñu seetaan boru tabaskee ngi ci loosam mais nag Hadj Malick tamit euh, dégg naa ci Serigne Maodo Sy alxaaji Abdoul Aziz Dabakh te dégg naa waxu Cheikh alxaaj Malick la mu ne réew mii di Sénégal aada moo fi mën diine bu dee dañ doon bëre aadaa fi mën diine te boo seetloo dafay mel ni dëgg la événement yi nga wax ni événement diine la heure bu ñëwee nga yëg ni aada ji toog na ci kaw diine ji ban gis-gis nga am ci xalaat tabarakallahu xaaj Malick loolu nga wax lu leer la man ci làmmiñu Serigne Cheikh Tidiane si laa ko déggee almaktum radiallahu anhu mu ne mim réew diine du fi mën aada mukk c'est parti allahu akbar c'est te ñoom xam nga ay xakim lañu mhm. du ñu wax rek di sànni seen wax dañuy natt wax ji ba mu am ah, ba mu tegu ñu doog koy teg fi mu war a tegu diine du fi mën aada donte la nag donte la nag ñun yàlla sant ñu aada diine la sant yàlla sant ñu aada diine lañu sant tabaarakallaahu dafa faral di dégg ci yow ngay wax ne mhm. li defaroogul woon wala li mottaleegul woon ci mag ñi mën na mottale koo su ñun kon li fekk dog jotul rek jubu du wees waaye bu yoon jeexul sax waaxusul di jeex boobu laa bëggoon wax bu yoon jeexul waaxusul di jeex diine ji yàlla ci loxo yonent bi la ko teg sallallahu alayhi wa sallam may jàng ci xutba maam cheikhul xaaji malik radiallahu anhu mu ne yonent bi daf ñu noppal dafa noppal xeetam parce que dafa am ci ñoom yërmande noppal gim ñu noppal mooy li nga bëgg li nga bëgg la la koy man la la koy may li nga bëgg la la koy may am njëg bi mayewu ko li nga bëgg li nga bëgg la la koy may du njëg déedéet isa jtamaatil iradatu hmm. isa jtamaatil iradatu walam yaxsuli tawfiqa fala najaaxa ah isa jtamaatil raxabatu wal iradatu mhm. walam yaxsuli tawfiqa fala najaaxa mhm. li nga bëgg la la koy may du njëg yàllaay dugal loxoom rek yàlla na yonent bi nag daf ñu noppal maam Cheikhul Xaaji Malik nee na faqad daxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayni am la xay ni aqranay ni yanzuraani fi sawaadin yabrukaani fi sawaadin wa yamchiyaani fi sawaad dabaxahuma bi yadihi sharifa dama ko wax wolof rek bismillah wallahu akbar mhm. allahumma hada anni wa man lam yudaxi min mhm. ummati mhm. mooy lan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ren ñaari xar ay séex xar yu weex tal ñu toj ci ndigg ba topp tipp bu ñuul ñaari xar yi ay séex lañu. ñooy doxandoo ñooy mbeewandoo. ñooy doxandoo ñooy defandoo lépp. bi muy rendi mu njëkk rendi benn bi ne yàlla bii pour man la ak njaboot gi. teg beneen bi ne wa man la lam yudaxi min ummati ila yawmil qiyaamati sama xeet ku fi jaarati te amoo tabaski dugg nga ci xar mi lu ñu sonne. jabar ñu sonal ak doom jabar yi lan. jaman yaa ko tànn diina la ko tànn loo waaw mais moo maa ko tànn li ma ko tànn nag moo tax mu sonal ma waaw kay kon yaa ko teg sa bopp laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha waaw mais xaru yonent bi doyu bu ma doyoon du ma sonne nii ma sonne fan yi maanaam waxin maanaam xam nga xam man dama toog toog dafa am ñu ma toogal waaw li ma gis man ci daral bi gis ko ci wutum xar waaw xam naa ni xaru yonent bi doyul gars yi waaw mais waman lam yu yudahi min ummati moo la noppal ah sa coono gi war naa mën a tegu ci suuf waaw sa coono gi war na mën a tegu ci suuf parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yërëm xeetam Hajj Malik foofu bëgg naa taxaw fa de waaw Hajj Malik na waaw xam nga problème bi fan la nekk ah yàlla teguñu yonente bi tabaskilal ñu waaw ku amul tabaskil na la noppal na la imam ah, Touré loolu waa léegi ma ne la yonente bi sori na nga ah. baal ma ma na imam bi sa quartier xaar moom mu rendi yaa nga ca biir moo tax ñu naan xaar leen ba imam rendi imam bi dañ ko cotiser xaar ah dañ ko cotiser ñun ñoo dajale jàkk ji jëndal ko xar boobu tabaski moo tax nag man zabaxa qabla al imaami fa laysa lahu illa lihaam looloo tax nag dégale bi ñu imaam bi mënul ba ñu dajaleel ko wutal ko xar mën na ma yóbbaale géew man non imaam bi mënu ñàkk du ñàkk mën de hmm. du ñàkk mën dañoo ah. bëgg mu yóbbaale ñëpp moo tax ñu jël alalu ñëpp def ci ah d'accord loolu moo tax ñu bëgg mu yóbbaale ñëpp ñu ne xaaral ba imaam rendi kon imaam maanaam yonent bi tabaskil nañu tabaskil nañu imaam bi ci koñ bi tabaskil nañu tabaskil lu indi ñag ñu sonn nii balaa may ñëw ci imaam lu indi ñu sonn nii ñoo ko bëgg a teg suñu bopp yow yow xaru xaru yonent bi doy na la sa diggante ak Mariam waaw su ma ko amuloon boobu doy na ma sëkk mais dama ko am nag d'accord dama ko am hmm, imaam su ma ko amuloon daf may doy sëkk <laughs> parce que kër benn kër goo xam ne da gis kër goo xam ne dafay dee ci ay xar nekkuñu fa ci ay nit man gis naa ko kër goo xam ne fukki xar benn dafay dee te ni fa nekk matuñu juróom-ñaari nit. macha allah te frigo yi ñu jënd ci tabax waa xaar bañ existe loolu. xaj ma euh, imam Cheikh Touré. dégg naa benn borom xam-xam ci ñu tuddee ay borom xam-xam yu ñu tuddee économiste am na kenn ku ci wax wax naa ko semaine bële passé ci diine ak xew-xew yi euh, dafa wax ni jafe-jafe yi ne senegal mu ne yegg na ci tey xar moo jënd soo ko rendee fees ko def ko ay kilo kilo bu ne li nga jënde xar mi boo ko évaluer dina la dikke dix mille wala lu ko ëpp kon xam nga jafe-jafe ñëw na chariyan bis bi passé na ndax ñii rey rey nañu mais tey nit ki toog amee bor boo xam ni wóor na ko ni parce que xajmal boo xa tëbës xasee passé kenn ku nekk ci ñun am nga fooy bañ am nga fooy nangoo jaar am na jigéen ñoo xam dañuy teggi mbedd yi loolu imam Touré lii sa maam Cheikh Al Hadj Malick waxoon ni diine mooy mën aada ci penc mi te bu fi ba war aada aada maanaam aadaay mën diine ci penc mi est-ce que loolu moo wér wala dafa mel ni yëf yi tabaarkallaaw waaw saas wax nga dëgg tabaski sunna la comme ni ko hélas waxee ci addis boobu ndax borom xam-xam toujours bu ñuy wax tabaski du farata sunna la du farata farata mooy loo xam ne boo ko defee am yool boo ko deful ñu daan la ci tabaski nag boo ko deful duñ la ci daan ndax sunna la sunna udhiya loolu la xalil wax su sunnaal nañ tabaski danañ ciy sukkandeku addis yonent bi sallallahu alayhi wa ñaari xar yim tabaskee <laughs> non waa rési ñu ne dafa mel ni d'accord ma mhm. non d'accord naa mhm. yow li nga wax mhm. damay laaj ndax téléspectateurs yi ak Sénégal dégg nañ ni tabaski sunna la tabaski moo tax ma ne la tabaski sunna la tabaski buñ ko buñ xamoon ne du farata sunna la uh-huh. yonent bi yàlla daf ko royloo ibrahima wa mhm. away naa illee ani tabix milata ibrahima mhm. yàlla daf ko wax na ko royal ibrahima moo tax yu bëri ci lislaam mais c'est que imam Touré yéen ni ngeen di waaraatee yonent yàlla ibrahima kër yi day am ay problème parce que yéen yéenay mm. waaraate woon ni bis bi mm. ku rayul xaaru tabaski defoo sunna nangam nangam ba ay problème waxtaan leeral bi passé ah. def naa ci émission boo xam ne une heure ak 30 minutes wax naa ci lu bëri mhm. wax naa ci boo ko boo xoolee di nga ko gis. Mhm. ci yi nga xam ne dañ ko war a def ci tabaski. sunna la boo xam ne boo ko deful doo ci am bàkkaar. sunna jarul sëy bu yëngu. waaye nag lenn mu ngi ci oustaz. Mhm. li may tere dama koy wax sama émission yi Sénégal célibataires yi du ñu nangoo di rey xar. loolu dafa ma jaaxal borom xam-xam yi dañoo wax ne in yetti man donte sax jirim la mhm. am na papaam alal jum ko fa bàyyil te mën naa jënd tabaski. na dem jënd ko ci. mais léegi xam nga ni rey nañ tabaski ba pare. dama bëggoon ñëw ci après ray bi. Mhm. conséquences yi nga xam ni jullit bi mi ngi koy jànkonteel. nga mhm. delloo waat ko. léegi loolu mooy sariya da wax ne. Mhm. njëg gi mooy koo xam ne ren ba déwén du ko soxloo. Haji Malick yow sa njëg ren ba déwén soxla woo ko. du ma ci am soxla toute franchise maanaam njëkk yi la la bëgg wax ne at bi. waa a doo ko ko ci mën a am. non soxla woo ko de. xoolal at at li ma ci jublu xaaral man mi ko wax maa ngi nii. fu xaa dañoo wax ne tabaski. bu dee da ngay ne ko diw may ma ma tabaski may ma ma jënd xar wala diw lebal ma jënd xar yow sunna boobu wàcc na la maanaam lu war a nekk sa poos la nga xam ne bu jotee rek dangay dem jënd. mooy waaw. waaye at bi mën naa ci lijjanti hmm. waxul loolu. daf ne. ki soxla njëg gi ci biir at mi. Hmm. warul tabaski tabaski hmm. wàcc na ko. tabaski da wàcc maanaam njëg mi. ki soxla njëg gi. maanaam boo ko jaayee boo yow xar mi nga jënd. waaw tey ba rey ko. su dee amaat nga fi soxla fii ak semaine te amoo njëggu tax lu tax semaine hmm. maanaam fii ak suba wala ginnaaw suba bu dee am nga fi soxla waaw te mënoo koo faj ngir xar mi nga jënd tabaski wàccoon na la waaw loolu la imaam Touré wax xam nga fuqaa yu dañuy wax ne maanaam tabaski li ciy wax mooy bu jotee da ngay làmb sa poos rek dem jël du lu ñuy oo nit comme li ñuy def di dem ci kër da diw sàngam di wala may ma wala lebal ma wala nangam loolu du sart ci tabaski xam nga sart bi mooy lan El Hadj Malick am na lu denc tabaski bu jotee rek day jël ci lu mu denc dem jënd ci du ko leb kenn du ko ñaan kenn. jeexitalu tabaski tabaski. après tabaski. lan mooy jeexital bi. Mhm. taasiir yi mu mën a def. ci doomu aadama bi nga xam am na xaram. Mhm. jaamu na ci yàlla mhm. rey na ko. ban njëriñ la ko mën a jural digganteem ak boroomam. ak yan taasiir la mën a def. ci gën ko jegeel boroomam gën ko waaw lim lim mën a def alquran wax na ko. lan yanaala llaaha luhumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum ragal yàlla lay def ci yow ragal yàlla bi mooy yow jaam nga da nekk kilifa mu ne la defal lim la digal nga def ko kuñ ne defal nag liñ la digal nga def ko kon kay da xam ne danga nga am buuñaa bu rëy loolu li ci nekk mooy da lay bijjal ragal yàlla ndax yonentu waxoon na ne xasimoo matayaakum xasimoo dahayaakum fa innoo matayaakum ala siraat yonentu mu ne na ngeen ut xar mu duuf ndax ëllëg bu ngeen di jéggi siraat moom moo leen di jéggale kon loolu taxsir bi muy def ci yow da nga mën a am yaakaar ne ah siraat mi alquran di wax ne wa in minkum ila waariduha wa kaana ala rabbika adman mahdiyan kon siraat bi may jàng ci charia ndeke kon bu ma tëbaskee xar mu duuf yàlla dana ma. xajma looy laaj yow. Mm-hmm. waaw xar mu duuf. Mm-hmm. exemple fii ñu toll fi réew mi toll. Mm-hmm. moo lu xar mu duuf tey xar mi ma tëbaskee tey. man deux cent mille lay jar. allahu akbar xaru ilimaan la. déedéet xaru ilimaan cinq cent mille la nga naan deux cent mille. Mm. xar bi sunu ilimaan bi rey cinq cent mille lay jar. <laughs> yow xar mi nga rey cinq cent mille lay jar. moom kii la foofu maanaam yàlla bu ne xar mu duuf ah. lu ci jëmm ju rëy ba ëpp foofu laa doon ñëw maanaam lu du mooy digal na la nga def lim la digal lu mat te bu am ayib yi nga xam ne dafay tax tabaski bi du mat xol bi daal la yàlla bëgg nga xol bi la yàlla bëgg nga duufal xol bi ci lim la digal nga def ko ah. te li ngay jënd bu mu am benn sikk ah. bët bu patte wala nopp yu dagg wala geen gu dagg ni ñu ko jàngale woon ci leeral bi passé mais imam loolu lay jublu ci duuf bi ba ëpp dëgg la hmm. dëgg la xajmal hmm. li ma bëggoon euh, si jeex waxaat ci tasir yi ba léegi rek hmm. imaam wax na ko léegi walakin yanaaluhu taqwa minkum la ca yàlla soxla mooy ñu ñu delloo ko suñu bopp rek ñu yëg ne moom moo fi nekk parce que lu mat junni junni junni xar nga nekk yow boo xasee nekk mu kallaf amul sama papa def na amul sama yaay def na mhm, la ca yàlla dog loolu la ca yàlla bëgg kon du ndawal ñu mhm, baal ma mhm. ña ngeen yeeg faaleen mi nañ ma jéggal du ndawal yàlla dafa bëgg def leen ngeen def gim ngeen ah, deret ji si tuuru loolu la ci bëgg te sacrifice la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na diis la ndax rendi jël paaka jëmale ci putu jàmbur moo tax mu ne arrahmaani rahim ci ci ñi ci ñi jot a rendi ren nañ ba pare ñi xam nga am léeg-léeg am ñoo amul tabaski war a rendi suba ginnaaw suba dëgg la bismillahi rahmaani rahim am na ñoo bi am ñoo xam ne lundi bi lañ tabaski waaw am ñoo xam ne dañu nar a tabaski suba ci talaata ji mm-hmm. Mm-hmm. moo tax arrahmaani ci kon yërmande googu ci nekk ak ragal yàlla ak sacrifice bi boobu ci nekk ak topp gi ñu topp loo parce que man damay gis ne jàngat bi ma am ci tabaski mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defa ne ko utal kilifa wax nga ko léegi wa tabi millata ibrahima utal kilifa moo tax bokk na ci ñaari sunna yi nga xam ne yu ñu war a bàyyi xel la ñaari sunna yu mag yonent bi la fi la ko fekk muy tabaski ak tudd mhm. fi la ko yonent bi fekk mhm. bii mu ne ko yekkali ko muy tabaski mhm. bële dañ ko koo defal mu ñëw rek appliqué ba pare nag santaane ko wax ca lam ci wax lépp kon jàngat bi ñu ci am ak jeexital bi mooy ñu yëg ne yàlla moo ñu def loo rek ñu def duñ ci yëg leneen ba yëg ba pare nga yëg ne defoo sànni woo sa xaalis jëndal xar mu fukki junni jëndal xar mu téeméeri junni sànni woo sa xaalis yéen a yem tuyaaba karawu xar waag deret waag bëy waag euh, béjjën yaag lépp xar mi yiw mais comme yéen ñaar jàngeen charia ñaari julli yi fi am dimanche ak altine waaw maanaam ixtilaaful ulama i rahma mhm. bu ci nekk borom xam-xam yi ci ci maanaam borom xam-xam yi yi appliqué ñi appliqué dimanche ci xam-xam lañ ko teg. Hmm. ñi appliqué altine ci xam-xam lañ ko teg commencement bi est jigéen ji jënd greffage su 200000. Hmm. jënd yére bu 100000 wala lépp boo ko évaluer mu mat hmm. te mënul jënd xaru tabaski bu 80000 francs. est-ce que loolu tamit kooku war na boole boppam ci biir jullit oustaz li ma la waxoon démb rek Sénégal problème bi leen gën a sonal mooy ñàkk a xam l'islam xamuñ ko de. non l'islam moom duñ ko mën a xam ndax ni ngeen koy jàngalee moo compliqué déedéet compliqué wu non dafa compliqué al imam ni ngay mm-hmm. jàngalee mm-hmm. ay xaajma ni ngeen mm-hmm. jàngalee ba yéen waaraate biñ fi fekkoon depuis rek ñun ba léegi changé guñ ñun ñëpp nag ñun ñii ñëpp ba nëga ni guñ ko ñun Tabaski fan yëpp booy déglu rajo yi Ibrahima euh, jàpp doom ja Ismaïla Ray man daal affaire ba léegi daal xam nga ci lu ñuy bañ a du xam nga dafa am alquran dafay wax ne qul aatu burhaanakum mhm. in kuntum saadiqin xam nga borom xam-xam yu bëri xam nga borom xam-xam yu li ñuy wax dañuy wax ne ñoom lislaam mhm. gëmuñ ne ñi mujj gis naa ñu bëri ñoo xam ne ñu ne lislaam ku wax ne lislaam dañ koy moderniser mhm. loolu xataa la xam nga xataa ci arab mooy loolu njuumte la lislaam dafa ànd ak modernisation amul lu ñuy moderniser waaw ah, mais l'islam dañ ko war a xam nga Baye Niass li mu xam nga Baye Niass li mu wax mu ne moom gëmu tajdid xam nga li tax loolu amul hmm. l'islam ba muy wàcc yonent bi hmm. dafa ànd ak la lan mooy mujaddid kon xam nga problème bi lan la ah. xam nga problème bi lan la ah. mooy nit ñi dafa am yuñ bëgg a dégg ak yuñ bugg ta dégg dafa am yoo xam ne ñoom soxla nañ ko di leen ciy wax xam nga ak yoo xam ne isa mais mais Hadj am euh, yoo xam ne waaw waaw bismillah imam Touré waaw xulubu mm, mm. lasin laa yu'minuuna bil aaxira mm-hmm. wa izaa zukkiru min loolu la maanaam loolu moom rek fi nekk nit ñi yàlla leneen rek lañ soxla waaw moo xam nag leneen la lu mën a doon rek mm-hmm. fekk amul folklore fu mu amul rek mm-hmm. ñoom soxla wuñ ko loolu moo ne ci boppi Sénégal li ko ci def nag li gën a bëri xam nga Seydina Alim dafa wax ne utee bu bari bi yëpp li ko waral ci àddina mooy ñi nga xam ne dañuy dugg ci lislaam te hmm. amuñ ci xam-xam hmm. xam nga yow oustaz nga kii oustaz nga hmm. léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay tontu loo xam ne war na te ba ñuy commencé ñu ngi koy wax ci ay njumti yi am ñi jàng dëgg bu leen joxoon di leen bàyyi nopp di leen déglu kon yooyu du am waaye yi am ne kenn mënu ko wax ba mu jeex problème bi koo jàng te boobu imam dafa bokk ci mojisa alquran ak modernisation bi alquran alxuraan moo moderniser boppam mhm. yow miy jàngale mhm. Mhm. yow yaay am xam-xamu topp alxuraan ci modernisation am mais alxuraan kenn du ko moderniser parce que moderniser sa boppam lu mu wax xam naa baatu moderniser tubaab la waaw mais man su ma doon wax damay wax actualiser wala contextualiser yu mel noonu waaw moderniser moom mën na gën a diis mais da fexe li ngay wax rek nga dëppale ko ak jamono bi ñu toll moom wax tey am na baat yu bëri ci alxuraan yow mu fassir nga soo ko wuute ko ne tey feeñ na mën nga ko firee tey ci adduna bi jege na la donc mais imam malik imam malik alquran moom moo waxal boppam te yow xam nga ne alquran saar bu wàcc madaniya lay wax wala màkka waxul sénégaliya mhm. mais lu mu ci teg lu mu ci teg li undira bikum li wa man balaga mhm. moo tax kooku moderniser na boppam xam nga dafa bokk ci mujiza alquran voilà li li li li li li imam Touré def léegi mhm. dafa bokk ci modernisa ci ci mujiza ca karama alquran ci miracle alquran mhm. Mhm. bi ngay wax wa ida zukira allahu waxdahu shma azdat qulubu alladina la yuminuuna bil axira pour ma neewu ci alquran pour man mm. pour man bi léegi la wàcc waaw ndax ndax ndax ni mu bees saa yoo ko waxee day bees tàq ci yow maa mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. mafhum bi nga ciy am amoo ko ci woon démb jàngoo ko te jàng nga ko ay at aaya bi ba ma ko jàngee léegi def na ñaar fukki at ak nangam yi wàcc te bees te gi te fekk bi muy ñëw alxuraan ñëwagul diina wax na ko bu yàgg alquranu naba'u ma qablakum wa xabaru ma ba'dakum wal xukmu fi ma baynakum suñ plateau gi alquran wax na ko wax wa ko bu yàgg waaw walaqad wasalnaa lahumul xawla laallahum yatadakkaruun macha allah aywa alquran na ko moo tax kon ñu dellu si waat kon mm-hmm. tabaski uh-huh. tabaski Haaj Malick liñ ci war a jàngatee ginnaaw ba yooyu yëpp jeexee wax nga wax bu am solo mooy ban man maa wax bu am solo waaw alhamdulilah ci tabaski xanaa nga ma waxal lii déglu ma wax nga wax bu am solo léegi léegi léegi léegi boobu moom boo koy faral di wax waaw nit ñi dañ leen ci war di yee mooy ban greffage yu deux cent mille mm-hmm. pose ongle vingt mille mm-hmm. dàll quarante cinq mille. mais boo ko deful nga def sa yaram may ma ma ñëw dinaa défendre de. waaw wax défendre jigéen ñi ñoo neexut a défendre. non neex nañu défendre. may ma ma ñëw. Ah, téeméeri junni nga def ko sa yaram te mënoo jënd xaru ah, fukki junni. yow li la yàlla teg mënoo ci fukki junni waaye li nga teg sa bopp mën nga ci téeméeri junni. ma dama ne. gis nga li imam Touré wax léegi moo ci nekk fi nekk na lu ñuy wut ñun ñoo bëgg yooyu ñun ñoo bëgg ñun ñoo bëgg nga nga bisu événement maa gis xale maa gis xale maa gis xale ko defee nag ngay mën di jàppat yoo xam ne maa gis xale jigéen yoo xam ne dañuy eh. ñëw fii tem nga na tem nga saalit parce que jigéen dañuy garder seen jëkkër yi wóorul da ngay génn seen ku ngelaw li sànni a garde ñàkk garde fi nekk la ñuy bañ dina am ah. garde ak ñàkk garde fe rek danañu takk mas naa wasulaa sa waru baax wax yàlla la mu ngi ci kër li li nañ ko génne télévision bi na ko mu ngay seetaan ah, kon si seetaan ko la dëkk hmm. waaye wax yàlla la hmm. léeg-léeg nga gis ko ànd ak soxnaam dem mairie ñuy signé seen yooyu yuy tappale yooyu ñuy signé naan ko monogamie a polygamie naan ko <laughs> Maodo looy siwriir doo signé polygamie dama ne li ma bëggoon wax xam nga lan la jigéen ñi bëgguñu dañuy choisir seen oustaz nga a yàq sa tabaski gis naa ah. ci oustaz bu naan gis naa ci oustaz bu naan oustaz gërëmaas xaraam na mu ne <laughs> ah, dafa xaram hmm. ah non non non Maodo nag loolu moom beneen débat la dinañ ci toogaat ci diine ak waaw léegi nag lu xaram ba pare nga bëgg ko non non périg la rek périg la rek ñu koy dëppoo la ba waaw d'accord waaw waxuma waxuma ko teg coono boobu mbaxana la rek mbaxana la am na ñu ko jàppee mbaxana wax nga beneen wax bu am solo mooy ban te foofu laay tëjee sama kàddu wax nga wax bu am solo. maa waxati lu am solo mooy. waaw bu tabaski bi paasee ngay ut yoon yoo war a jaar yow warul ah, jaar lu ko fi jaar. dëgg la teggi bitig yi. mel mi te ay mii boo may tuul am na yoon yooyu teggi. waaw mënul ñàkk xaaj ma ko mais aada ko teggilul. kuy aada aada moo ne kan man dëkk ci koñ bi di ma gis bis bu ne. mooy lan Imam Touré sharayan <laughs> tàgga tàggatool xaaj Malick Gaaw balaa may jox Imam Touré tabaarakallahu kon xanaa ñuy baalu xaq ñëpp jërëjëf jërëjëf wax nga léegi sa biir wax atu yàlla nga toog ko ci télé di wax ak am na ñu kontaan am na ñoo xam ne boo ubbee rek ñu naan s'appelle nañ ñaan yàlla ñu saf ñu ndax diine rek lañ fi toogal wax dëgg yàlla ñu ngi di jéggalu bu baax kàddu gu déplacé ñoo xam ne yiw lañ ci bëggoon uh-huh. waaw la la Seydina Shuayb waxoon rek wa ma uridu an uxaalifakum uh-huh. ila ma anhaakum anhu uh-huh. ma tawfiqi illa billah yow moom promettre naa la maak yaag Touré waaw dinaa leen indi ci diine ak amul benn problème eh, incha allah la bu bees ci kër gi Seydou moo wax ni kilifa gee ko santaane def nañ première numéro bi bu ñu jullee ba pare incha allah comme tey bu ñu weesoo lii rek di ngeen fi ñëw ñu waxtaanee parce que xale ngeen mais macha allah jàng ngeen alhamdulilah te xam-xam bi dëgër na ta am ngeen fayda li ci des rek mooy oser leen li ngeen jàng ngeen imposer ko mhm. nit ñi dégg ko mhm. te bu leen hésiter incha allah imam Touré lan ngay tàggoo waaw macha allah oustaz ñu ngi balu ak rek mhm. comme li may wax toujours rek nañuy dellu lool rek toujours laay wax ndax nañ dellu ci alquran ak ndax suñ mag ñi ñu yaakaar fii koo fi wax rek am na mag moom yaakaar alxuraan moom moo la teral mm-hmm. alquran wa innahu la sikrun lakka wa li qawmika wa sawfa tusaluuna yàlla mu ne mooy sa tiraanga mm-hmm. ak say nit ëllëg danañ leen laa yéen lan ngeen defal alquran ba mu nekkee seen tiraanga ba pare suñ mag ñëpp ci loolu lañ nekkoon mm-hmm. kon ñu ngi balu ak waa addina bi yëpp ñu ñu doon déglu lépp lu ñu fi def ci xataa ci ay firi mhm. ñu ngi koy jéggalu borom bi subhanahu wa taala léeg-léeg firi mi nag dana am ñaari dégg léeg-léeg nit ne waaw kii firi mi olof yi mag ñi la jël léeg-léeg kenn la gën a la jege mhm. kenn la déere taxawal fële baax na ndax mag ñi loolu lañ daan firi loolu déggin la macha allah itam ñu lay ñaanal yàlla benn lañ mais sañ sa nga sa téer bi la ñawal yow comme yow yàlla dogal na nga ñëw man sama ñëw pareegul sa ñëw pareegul yàkkamti jóge Thiès waaw dëgg la man sama benn mag bu nekk Turquie mooma ne gis neer bi macha allah Hadj Malick moom dafa demoon Maroc moo tax temps yi ngeen seen ko fu mu ngi bu verte bu la zone yi yu bëri la ci indi mais muus na nag parce que bii moo gën a neex a demee télé ko yàlla may taw waaw na comme Thiès laa jógee te sama ñëw parewul <laughs> ñu jéggal ma ko yàlla defal nu dégg defal nu topp mm-hmm. gërëm nañ leen sant leen bu baax ñu ànd ak tàggkatu yonent bi dalalaat ñeneen ci plateau bi ridan duna

صلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم دازر زارا يومك عمدي وشكري لمن لا اله الا الله لبي سارا لا اله الا الله صار صار عمدي وشكري لمن من كل بي سارا لا اله

رمتا إن أطالنا في أجام من سارا لله كل لدى لله أبرم أكرمتا إن أطالنا في أجام من سارا من سارا إن الذين إلى سرسر قد قصدوا يا رتي الفقر

إله خديمك يا باب سعادتي يا أب الفضيلة والمفروض وسلطان هذا خديمك يا دليل يرماك كدف يا الفضيلة والمفروض كسوف رسول الله هذا خديمك يا السعادة يا رب الفقيرة والمفرود وسلطان هذا قديمك يا كرام ويا أبرادة والمفرود وسنن جدك عن رسائل والفضائل لأو بإذن الله إن خلق يكون المصطفى جمك والغالي وأصابنا الشكر عالمة أتبخى الأنبياء ومن صلى عنها ما لشكر سرق الفتى خطبها الأنبياء من لا ku sopp rasulilaay déglu ma wax la la nii ak Mustafa meela ma tudd nga ci mbindeef yàlla déglul ma wax la Seydina Muhammad melal bam tudd nga nga ñeeneew nga ñeenew Muhammadu rasulilaay yàlla ne sakku loo islam tagaayoo yàlla فدوت ساك جميل الأمور يا الله نسأل الله نسأل الله muhammadu rasulillahi dëddu sàkkati misloom wóor na yàlla dëddu sàkkati misloom wóor na yàlla ku sopp rasulillahi dëddu sàkkati dëddu sàkkati misloom muhammadu rasulillahi dëddu sàkkati misloom wóor na yàlla dëddu sàkkati tabarakallahu alhamdulilahi rabbil alamin xaj Moussa kontaan nañu dëgg dëgg daal euh, woy baat baax na ca neex baax na ca tabarakallahu ñëpp bég nañ téléspectateurs yi kontaan nañu yal na yàlla fay leen choix bi télévision bi def ci yéen alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu ngi toujours ci spécial tabaski ngeen àndandoo ak seen mbokk al imam haj Malick Diop depuis bi ñu tàmbalee ba naga ni gis ngeen ñi fi jaar ci animateurs yi nga xam ne ñu ne ñoom ak yéen ñoo ñoo nekk ci télévision bi heure bu nekk di leen bégal ci ay waxtaan ay jotaay waaye nag kër gi dafa am ñoo xam ne tamit miin ngeen leen fii ñuy sunu ay jarbaat di sunu ay rakk di sunu ay soxna eh, nekkandoog ñun ci kër gi di jàmbaar lool tamit nag bokk ci jigéen ñi nga xam ni ay modèle lañu ci réew mi ay xale lañu mais engagé wu nañ te bi ñu engagé woo tamit wax dëgg yàlla xam nañu fi ñu jëm ñoom teg nañ fa seen tànk ñu ngi góorgóorlu ñaan sunu boroom yàlla may leen dëgëral taxawaay jàppale leen dooleel leen ba responsabilité ak engagement ak yéene yi ñu am ci réew mi ñu am possibilité mën ko exercer ngir que euh, ñu nekk ay roytuwaay ci ñi nga xam ni ñoo bokk ak ñoom réew mi te di leen xool bokk na ci ñaar ñii ma dalal ngeen miin leen seen kanam ci télévision bi muy Sayida Aminata Jafal Sayida Aminata ci émission penc mi muy àndandoog yéen ngeen koy gis bis bu nekk moo fi ñëw soxna Aminata Jafal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax a baax Haj Malick. aouzu billahi min ashaytani rajim. bismillahi rahmani rahim. hamdan li baari il summa salaatu wasalaamu ala rasulil arab maana xafi dawil xamam xaaj euh, Malick ñu ngi lay delloo nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu Zeyna Lo moom tamit euh, di ko ziar di déwénal mbokk yi nga xamante ne ñoo toog jàkkaarloog ñun ci bésu tabaski bu sell bi macha allah rabbi kenn ku nekk xat xam na ne xat na nag ndax suñu xëyee suba nag ba rey xar yi macha allah rabbi ba def lakk yi xëy suba sax laax yee ko jiitu ma xam naa nag sa question dina ñëw mais coono googu yëpp nag ñu daj ko ba ñëw toog fii xam nañ ne yéen yéen ñu ko jaral moo tax ñu ñëw toog waaye kenn ku nekk xam ne tey moom dafa xat xaaj Maalik xat na trop <laughs> ziar nañ la bu baax. kontaan nañ soxna Zeynabou Lo ñu ngi lay nuyu mais man Zeyna sax laa war a parce que yow Zeyna bu ñu ni nga koy wéyoo bëriwul de <laughs> maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam yaa imaam. Uh-huh. maa ngi lay ziar bu baax a baax. Eh, di nuyu sama mag bi nga xamante ni aussi mu ngi fi muy soxna Amidor uh-huh. di nuyu téléspectateur groupe Futurs Médias rawatina télé bi nga xamante ni mooy TFM religion uh-huh. donc di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla jéggal ñu te jàppale ñu ba feetu tey bi ñu di ko fekk fekkee ay at yu baree baree bari ci barke alxuraanul karim yow lu tax ngay wan air neexal baat wala. <laughs> yëfu jeune la rek. Ah. <laughs> yëfu jeune la rek <laughs> te pourtant sentiru ma ko. mais tey yow kan nga doon defaral borom kër gi wala ñëwagul. Euh, non non tey ki ma doon defaral mooy samay rak. Hmm. suñu waa kër. non dama la ah. bëgg dama la bëgg wax ak téléspectateurs yi am na koo doon defaral wala defaraloo kenn defaraluma kenn sama bopp laa doon defar ak suñu waa kër kenn fëggagul foofu sa buntu kër tamit wala am na ñuy fëgg wala kuy fëgg am na ñuy <laughs> ma ñuy fëgg <laughs> ah, nga ko def noonu mais li da ngay tiital gars yi de ah. non mais am na ñuy fëgg mais gisagu ma sax d'accord d'accord <laughs> ah imaam question bi ah sama alaaji bi est-ce que bokkul ci ñu bëgg a fëgg ah ok xam naa ne yaay laaj waaye mais en afwan en afwan mais Zeynab léegi nañ bàyyi loolu bañ pare d'accord maa ngi lay yow dafa mel ni léegi daal diine ji moom tabaski bi moom da ngeen di moderniser diine ji. parce que ah. boo xoolee ni ngeen daan solo day soppeeku fekk muuru ngeen de. Ah, mais loxo yi du day feeñ ah. moderniser diine ji daal. solo bi moom day moderniser ci tabaski ji imaam nag loxo yi gudd na nag imaam parce que yi dañ ko moderniser ci colu tabaski gi. waaw noon la ay loxo yu aju fii. Mhm. baat buy feeñ yooyu moom aayul ci tabaski gi de. non ba tey lépp mën na war naa mën a nekk sax mais xam nga Serigne Cheikh dafa waxoon ne niru sa jamono gën niru sa baay. fi jamono toll nii nii nii nii nii tembe l'essentiel daal nañu fexe ba li nga xamante ne moom la ñu islam sant ba bu mu feeñ nañu fexe ba ba bu mu feeñ mooy nag suñu loxo yi nag li ñuy sol na jot bu ko defee mais xam nga Zeyna moom dafay moom da di xale waaw dafa branché bokkul ak man man maire laa moo tax ma def jëm mag ma def yëfi mag rek mais julli gi tey lan ngay wax sa mhm. mbokk jigéen ñi nga xam ni mhm. biñ koy waajal gàddu nañ ay bor mhm. coono topp na leen ci jafe-jafe yi Euh, am ci ñoo xam ni sax daanaka waxtu bi ma wax ak yow. Mhm. guddi jotagul. mais ñu ngi seet ban ban pexe la ñuy lal. ci mhm. ngoonu tey. Mhm. ndax lekk nañu xaalisu ñaari nit wala ñetti nit wala ñeenti nit. ñi kenn ku ne fi mu toll daal euh, benn nit boo xam ni ku ne indi na deux cent mille nga dajale muy huit cent mille ñeenti nit. nga war a lijjanti nag pexe yoo mën a def. ba mu génn ci ngoonu tey te loolu. nekkul lu nëbb. dëgg lu feeñ la. Euh, te nag ay jullit lañ. dëgg la te ci fête bi lañ bokk. te événement bi événement fête la Zeyna. dëgg la dëgg-dëgg nag man jàpp naa ni nit mën na mën na maa ngi tooñ Zeyna bu. Mhm. nit mën na dund nekk ndaw. Mhm. nekk jigéen. bu jamono doxee nga dox ànd ak moom peut-être bu fekkee yàlla may na boroom kër nga xam ni ngay doxale mhm. su la yamaru borom kër am nga sañ-sañ ak euh, tànnal sa bopp parce que dama wax ni bu njëkk dañ daan tànni jabar jabar toog mhm. léegi jabar ju ko def góor ñëw nax la mhm. léegi da ngay am sa xel am say bët ni ñuy tànnee jabar nga koy tànnee jëkkër su dul loolu boo toogee rek am ku ñëw piégé la mhm. parce que am na koo xam ni bu ñëwee rek di la wax nga naan waaw waaw du ma jóg du ma génn dana la piégé ba jot la te fekk li mu la wax dara amu ci lan ngay wax sa mbokku jigéen ñooñu événement bi passé na. am na ci koo xam waxtu wi ñu toll di toog. Mm-hmm. Mm-hmm. moom ñun ñoo lekk nañu. Mm-hmm. naan nañu wala ñu ngi ci journée bi. mais moom xelam tuxu na. parce que yi mu yenn woon xamul fu mu koy yenneeku ñii ci ay pexe lañ ko def. ñii naxuñu kenn. mais lebi nañ loo xam ni attanuñ ko. ban jàngale en tant que jigéen. Mhm. ba pare nekk nitu diine. macha allah nga mën a joxe ci Cheikh Seydal Hadj Malick ñàkk xam lan moo waral tabaski rek yëkkati ñàkk xam lu waral tabaski moom mooy indi loolu Cheikh Seydal ndax dama wax ni bu ñu xamee fan la tabaski bàyyeekoo déjà confirmation mbëggeel la. ci diggante suñu maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ak borom bi subhaanahu wa taala ndax kenn ku nekk xam na ne maam Ibrahima mooy xalilullahi xaritu yàlla yàlla may ko mu dund at yi mu dund amul doom mu koy ñaan doom. yàlla may ko ko mais bi mu ko ko mayee euh, Cheikh Seydi Hadji Malick yàlla da doon testé di xool ndax mbëgg xaritam nga mu xaritoo woon ak moom ndax dëggu na ba léegi wala déet kon tabaski képp koo xamante ne jigéen nga war nga xalaat ne li confirmation boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko defoon ci diggante ma Ibrahima. alayhi confirmation mbëggeel bul mm. yooyu. gëmoo yooyu ci réew mi ñu ah, mais mbëggeel moom confirmation amu fi. mais mais mais mais am na de am na de c'est que moom. naxante xam xam nga yéen moom comme am ngeen droit takk ñeenti jabar yéen yéen yéen mbëggeel moom. Sénégal moom naxante moo mën naa nekk mais xam nga góor ñi moom fa dañuy photocopier ñoom ñoom am nañ droit ku mën a bëgg ñeenti jabar moom pour man sa mbëggeel bëgg kenn ñun ba léegi ñu ngi bëgg Seex Seydi Hajji Malick dégg moo tax gis nga ma Ibrahima alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xamante ne yàlla daf ko tuddee xarit mu doon confirmer ndax xarit googu mu doon woote diggante moom dëggu na ba tey loolu loolu la yàlla doon xool ci bésu tabaski mais man li ma ci gën a neex en tant que jigéen buñ ci egsee ñu xool ne macha allahu rabbi war nañu xool ci Hajara ak ki nga xamante ne mooy Saarata seen histoire mooy fi nga xamante ne kii dafa jël boroom këram may ko ki nga xamante ne moom mooy jaamam mais ñu doxal doxal doxal ba tuuti ñooñu dañu bëggante woon waaw lii ngay wax nii mm. am na ñaari jeeg yu ne ci kër tey mm. seen borom kër xam nañ ni mënul jënd benn xar mm-hmm. lijjanti loo nañ ko ba dugal ko ci ay giraawaali mi ngi mm-hmm. boru ñaari xar mm-hmm. parce que nanguwu ñoo bokk benn xar bi te xam nañ ni jeex na toj nañ yàpp bi saam nañ ko kenn xàmmeetul xar yi mais ça c'est de waxoo ma kooku di kilifa ki na fàng la Ah, kilifa ci këram du wax ñu ciy teg baat mais boo nobee sa jabar tamit doo bëgg lu ko naqari waaw loolu koo koy kina fàng nag mais na kilifa ci biir këram day def lu mu mën dina yar ay njabootam ak ay soxnaam ba mu wóor ko ne su defee dara duñ am sax fitu di ci ah, teg baat mais Seydina nañu waxante dëgg nag lii nga may wax nii Seynabou eh. man je ne suis pas xëñ na nag yow duggagoo mais li wax man d' accord ma ko de fii Sénégal jigéen ñu bëri nanguwuñu bokk tabaski te nag bëgg indi indi na sa kër jar na dem wuti ñaari xar wala ñetti xar mais li jaadu woon mooy charia yow góor la sant nga tabaski mais tey am na góor ñoo xam ne ñu ngi ci ay problème actuellement di heures ba nëgë ni wala vingt ba yeewoo ci suba ba nëgë ni ci ay jafe-jafe mooy xar mi ñu indi xar yi ñu indi seen loos la ne amuñu jàmm ñu ngi jaaxle loolu en tant que xale sëyegoo mais am nga ci gis-gis parce que nitu diine nga. d'accord donc man fi may njëkkee euh, yaa oustaz comme li nga njëkk a wax. tey li ñuy dundee fête bi ñun nga xamante ne ay xale lañ ay jeunes lañ mais mënul ñàkk parce que feet la donc foog ñu ah, sañse dafa am feetu jeune ak feetu mag non feet bu ñëw moom jeunes yi moom dañ koy feete ba mu neex feetoo jeune en tant que comme tey jii ñun bu dee jigéen mhm. fook ñu jéem a ñawlu lu rafet comprendre ñawlu rafet ñun mag ñi bokkuñu ci non mais ci jeunes yi la gën a rafetee <laughs> non Seyda comprendre nga donc ci jeunes yi quoi lay gën a feete presque pour jeunes yi la jë dëgg la ñëpp mën nañ ñëpp dañ koy feetu <laughs> mais jeunes yi ñoo koy gën a jël au sérieux quoi laa bëgg a wax ñun jigéen ñi maanaam jeunes yi mooy ñi amagul jëkkër waa sama genre gi que war a dem hmm. euh, comme nii def sañse ba mu baax dem def sa maquillage bu baax hmm. mais nag comme ni nga ko waxee na nga ko amee nag nu lew parce que man moom toujours dama naan li may def reetaan li may def ay ree mooy tey euh, sama moroom yu bari événement bi bu ñëwee da ngay gis dañuy dem leb tissu dañuy dem lebi leb dàll yi leb ay cheveux comprendre nga mhm. donc leba leba leba leb ba toujours dama naan bu jour korité jour tabaski bi ñëwee comme tey nii ci ngoon bi da ngay gis nit ki bu sañsee sax du rafet mhm. parce que stress moo koy jàpp te stress ak sañse àndul donc tey da ngay xool boo sañsee ba mu baax fekk li nga sol yëpp tey da ko amee ci noo xamante ni sa xel dalul bu ngoon bi jotee comme nii doo bëgg doo bëgg jour bi passé parce que lépp li nga leboon daganaan naan ba après tabaski du dëgg te après tabaski dina ñëw mm-hmm. dëgg mm-hmm. après tabaski dina ñëw après tabaski bu ñëwee après nit ñi taxaw la nga am gàcce ci sa kanamu nawle donc jaru ko mm-hmm. boo ko amee moom defaral ba mu baax dundal feet bi ba mu neex xappil comme ñëpp mais nag boo ko amul yemal ci li nga xamante ne loolu nga am benn bis Zeyna jar na dugg ci ay jafe-jafe yu lay teggiloo ay mbedd loolu laay wax ma ne tey jour tabaski bi rek li nga am comme sama yaay li muy wax amoom mu ñoo yàlla tegu ko kenn li nga am doyloo ko parce que loolu la la yàlla jox munoo gis ki nga xamante ne tey mën na sol jasneer yow nga mën a sol xartub wala nga mën a sol benn euh, euh, bazin riche nga ni force da ngay sol jasneer wala da ngay sol brodé autriche fekk amoo ko mais noo ko amee baax non xam nga bu dee yéen ñi amagul jëkkër yéen am ngeen moyen parce que yéen da ngeen am ay moyens am ngeen pexe. nan la ñu amee ay pexe mais bu dee <laughs> yéen am ngeen ay tak-tak yéen da ngeen bëri ay escalier yu ngeen di jaar. <laughs> non kaay ma wax la nag góor bi nga xamante ne aussi yaa ngi ànd ak sa jigéen. Eh. nga ni bëgg nga ko. Mhm. jour tabaski la événement tabaski nag bu jotee bul xaar sax mu laaj la yaa euh, yaa mais parce que bëgg nga jour tabaski boobu mu defar ba mu rafet. waaw mais nag mais nag mais nag xam nga il faut ngeen baal ma. Hmm. na ma téléspectateurs yi baal. Hmm. buñ ne a dugg ci problème yi. mais lu ma xam laay wax parce que tamit euh, gis nga Euh, ñun comprendre nañu. xam nga mm. bu dee am nga ñuy ñuy fëgg sa bunt. man su tabaski jotee ma bokk ci ñuy fëgg. <laughs> damay fexe ba boîte vocal nga may jot yow. diiru li ñuy waajal tabaski boîte vocale. mais kaay bu jeexee damaa demoon praaya ñibbisi wala dama demoon am na ñuy fëgg c'est-à-dire tey. jigéen bu tollee ci yenn âge bi dina gis façon bu nekk. du dëgg dina gis imam fii gis oustaz imam Touré fii ah, imam yi dañu ñëw gis mooy yow euh, imam yaa dàq fëgg biir way non sa genre la sa genre gi la ilaha illa allah <laughs> sa genre gee eh. dàq fëgg eh. ñoo gën a mën a oh, jaay daanaan ñoom ñi ñu jàng ñi kii wax na lu garaaw de dëgg la de eh. eh, eh Zeyna yaay maam Zeyna xam nga xam nga li may wax Sénégal yi Zeyna dañuy fëgg ñoom oustaz yi ndax ñoom ay xam nga li leen sonal Aminata attends mas naa wasula sa waru baax da leen a sonal ñoom parce que man man fëgguma man bi may bi may waaw bàyyi ma maam am na sama ah, jabar xoolal kenn kaa nga France di ma seetaan Zeyna ziar Zeyna kenn kaa ngi fii fa laa jógee mais nañu waxante dëgg mooy yow Seyda li wax ah. garaaw na de nuy wax am dañuy fëgg ñoom oustaz yi oustaz yi ñoom premièrement ci yow mi waaw ah. ñoom oustaz yi comme matalaguñ ñeent daal waaw mais lii jëlu leen <laughs> yaa imaam euh, euh, te xoolal li ci gën a neex yaa Seyda boo ne <laughs> ah yow ma yaakaaroon oustaz la dañ naan la xanaa oustaz du nit. du nit ah, ah oustaz du nit ah, yaa ngi génn seen i secret de. yow noonu la la Mara defoon yow. <laughs> ah non non xam nga yéen fu mu toll nii comme moom oustaz la yow imaam la yow. man moom la la demee ah bien sûr. waaw ah, ah, moom bien sûr da ngeen fëgg yéen moom da ngeen <laughs> yu metti ngeen yore bu xam ngeen yéen xam nga problème bi mooy ñoom ñoom mas naa wasulaa sa waru baax moom looloo leen sonal mhm. bañ xamee ne yàlla may na leen ñeent ba tey bu mhm. amee benn duñ ca yem mhm. moom ku ci yor ñaar doo ca yem ku ci yor ñett doo ca yem ba mu ne wóor bu amee ñeent mën ngaa bantale sax duñ ca yem ñoom bul sax sonn. mais nag ah Zeyna Zeyna mais mais mais parce ah. que bëgguma nga toog fii. naan xale yu góor yi nga xam ne dañ leen di def loolu ñu mënul. te yéen ñi mel ni ñun bokkuñu. te yéen da ngeen pourtant yéen a ngi def yéen a ngi fëgg yéen a ngi def waaw. te mën na leen a leer ne fi ngeen def am na ko fa def ba pare waaw mais da ngeen di buuxante buuxante waaw sëy naa nag euh, man chef de production laay wax dëgg dëgg euh, tooñ na ma parce man kilifa laa nekk imam sama njaboot toog di ma xool lii mu ma dugal nii man ay animé émission góor laa xam mais animé émission ay jigéen parce que toog di wax iliman dañuy fëgg oustaz dañuy fëgg oustaz si réew mi nga attaqué ah oustaz mais oustaz ay nit la ñu nag cercé de xaajement la yéen tamit xam nga soxna nag mais kay nga yaa Amina noonu nga ne malaaka ñëwul sa kër donc ngeen ah kon léegi nangu nga non wax dina may mhm. ku mel ni man daaw ma fëgg mhm. dina ma may ma mën a fëgg mhm. parce que na fu ma bëgg a fëgg mais pour fëgg da nga koy waaj parce que dañu comprendre pourtant <laughs> gars yi ah. boo fëggee ñu def yi dañu <laughs> mais il faut Zeyna mi mais ma ne la Oustaz ah, am na solo Zeyna rek am na say morom yoo xam ne bu ñu fëggee ñuy ne la ma yaakaar ne déglu ma Imam Touré laa ko war a boole <laughs> ñoom ñaar déglu ma dama lay may fit ñu écrasé plateau bi quoi dama lay may fit parce que nee naa la tey Oustaz yooyu am na ci ñi nga xam ne xam naa am na Oustaz bu naan kii moo dëgër fit ku ko bàyyi mais loolu la ñuy def de mën nga fëgg nga gis ko naan ah man ma yaakaaroon ne yow Oustaz yéen loolu dañ naan ah mais xanaa Oustaz États-Unis. waaw hmm. dama ñëw pour wax ak yow. parce que li li li nga waxee li li mër mbëtt. li mbëtt bëgg moom la baax may. bu ko defee yooyu da ngay toog. comprendre xam ne kii <laughs> ngay wax rek loolu la ñuy ah, ah, moom ci daara ji la bokk <laughs> moo tax xaaj Malick. xam nga Zeyna Mara nu woon. non macha allah xam nga yéen ay ay ay naandite ngeen. Mm-hmm. yéen ñi nga xamante ne da ngeen a jàng diine macha allah rabbi yàlla def aussi ma nga makkatul mukaram waaw ñi ngi koy ziar bu baax a baax a baax macha allah rabbi uh-huh. imam eh, man xam naa ne ñi mu ñëwoon yaama ko gën a xam ndax mm-hmm. xaritam ga mm-hmm. xam naa da nga ma ñamal leen ci ci bésu tabaski bi mais xam nga man moom mara yàlla dafa def ñaar yoon lañ mës a gisante mm-hmm. man oh. ñaari yoon lañ mës a gis kër pa Abdou Aziz Dieye sama benn xarit fàññang maa ngi koy nuyu au passage mi ngi ba Italie mu gis ma daana fàññang ki fexeel ba indil ma ko sama gàmm gis nga gis nga fexeel ba oh. indil ma ko ci gàmm gi man boobu miinante wuñ te yàgg naa ñëw suñu koñ gàmm na fa ñetti at <laughs> musuma koo teg bët musuma dem ca gàmm ga mu ni fàjñang indil ma kii ci gàmm gi mais bi ma ñëwee moom daal kon ndax fu mu waxee rek man jox ma kanam gi man xaw ma comprendre ma nu mu mais fu ma wëree daal di kii ci yonent bi rek ba rek jox ma ko nii <laughs> mais <laughs> a comprendre après lay soog a mais ay naandite lañ mais ay naandite lañ mais lépp nag macha allah Cheikh Seyda Hadji Malick yiw la rek yiw la rek macha allah gàmmu Seyda la woon <laughs> macha allah après ci gàmm gi ngeen teq bi fajar gi jotee mu nuyu la noonu tabaarkalla non man ba fajar gi jotee gisante wuñ ndax fekk na ma ñibbi xam nga nit buñ la yaree am na yoo xam ne doo ko mën nga daanu comme moom non gàmm ga neex na mais man booba def ma woon ci sama xel yooyu yëpp moom gis na ma bëgg ma mais man boobu bëggante wuñu ñaaro lañ lañ mës a gisante say am comme li ñuy wax génn doxul ci suñu diggante te ñi nga am 14 ans de mariage ci ren alhamdulilah def nañ 14 ans de mariage ci ren Seyda waaw bëgg bu mel nii <laughs> bu mel comme comme bii nii gisante ñaari yoon rek ñëw ñaari yoon après <laughs> alxayri ji en tout cas ay naante ngeen daal yéen kon nag alhamdulilah parce que da nga ci gis oustaz boo xam ni waaw mm. du sëggi xool nit danga naan mais kii est-ce que dina kii kii nu mu def ba gisanteeg jabar jabar <laughs> nga la pourtant takk na ah. sa femme ñoom ñëpp <laughs> dañoo yore i bu ñuy soog a bëggante dañuy tàmbali <laughs> sa papa nga fa tari ci kaw sa papa daanu mm. ko defee sa yaay naan kii laa doon wër ñu tàmbali xam nga waaw bu ko bopp comme comme xale yu góor yi non non non mais Seyda looy tàggatoo looy tàggatoo tey looy <laughs> tàggatoo tey ci tabaski uh-huh. di kontaan bu baax a baax a baax a baax d'abord ak sama mag ju baax ji Aminata mais nag euh, conseil émission bi ngay def euh, hmm, a a dëppoo ngeen dina gën a defar lépp kon nag mu donc may nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toogoon fii di ñu seetaan hmm. euh, di wax sama mbokk xale yu jigéen yi aussi nañu def nànk àdduna Euh, lenn jaru fi nga ngay ngay def li nga xamante ni tey après di nga ci am gàcc wala di nga ci di ci di nga teg di nga teg say parent li nga xamante ni tey hmm. euh, mënoon na ñàkk hmm. jour tabaski kese comme jour bii nii tey guddi bi dafay jeex hmm. te guddi bu jeexee après yaa ngi jàll ci demee donc bu doon def nga loo xamante ni tey après ay ay ay ay problème moo la ci indil wala ay gàllankoor xam nga di nga réccu quoi di nga ni lan moo tax ma duggoon ci lii kon comme comme jaru ko donc nañu nañu nañu nañu euh, doyluwaat comprendre nañu doyluwaat te jéem a liggéey aussi bañ a bëgg lu yomb parce que yenn yi aussi bëgg lu yomb la nga jël sa lépp bëgg basé wu ci kenn événement jom lu nekk nga bëgg ko am te fekk sa liggéey mayu la ko wala tey liggéeyoo sax nga bëgg am lépp tamit ñenwul maanaa donc nañu liggéeyaat góor góorgóorluwaat gëmaat suñu bopp donc ba ba yàlla incha allah ñu jàppale daal donc maa leen di ah. bu baax a baax te di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais Zeyna neexul ba neexul nag ba sa discours bii nga tëjee dana tax gaa yi ñëw de waaw dëgg dëgg nag waaw waxu waxu responsable nga wax yàlla na yàlla dëgg la sa taxawaay allahuma amiin gërëm nañ la sant nañ la sañ si bi rafet na yàlla na yàlla dolli fi hmm. jaar muy Fatou Gueye di sama xarit boo xamante ni depuis daara ja ba léegi ñooy ñooy ànd hmm. donc ñaw rek lay def yow wàcc nga alxuraan ndeysaan pour téléspectateur yi la pour téléspectateur yi waa jàng naa boo wàcc alxuraan mais nag xam damay dund jeunesse bi rek nag diine ak jamono yi ak jamono rek laay dund nag parce que on est lay remercier ci tenue bu yaaññi bii nga ma ñawal euh, ma lay ñaanal yow it yàlla bàyyi la ak sa borom kër jàppale leen ba lépp li ngeen bëgg mm-hmm. yàlla defal leen ko yàlla may leen njaboot gu barke mm-hmm. te mu doon lu gën ci yéen ci barke alxuraan ñu ñaanal balaa tabaski déwén yàlla indi oustaz bu oustaz bu baax te bu am caac macha allah <laughs> charte bi kon mooy oustaz bu baax te am caac. waaw oustaz diine ak jamono waaw diine ak jamono ah diine ak jamono la wax di Modou dimbali ma nag diine ak jamono la wax waaw man maa ngi ci diine ak xew-xew. Euh, Seyda Aminata téléspectateurs yi xàmmee nañ la télé bi miin nga ko sa image ñëpp a ngi koy gis jàmbaar nga jigéen nga mais xale bu jàmbaare nga ci xam-xam bi. ci éloquence bi ci wax ji ci lépp comme ni ma wax Seyda Zeynab léegi mais dañu lay encourager di la wax ne la yaa ngi ci yoon wi ngay suñ njaboot ñaari yoon ñu ngi lay gërëm di la sant ci teewaay bi euh, di la ñaanal yàlla may la continuité ci liggéey bi ban kàddu ngay tàggoo gannaaw boo ziyaare sa téléspectateurs yi ba pare. ni nga ko waxee message bu ñuy jàllale comme ñun xam naa Zeynaaw ni mu waxee moom noonu la ndax moom ndaw la te ndox ndaw dafay ndox ndawam mais dox ko nam ko war a doxee macha allahu rabbi ba bu nekkee mag eh, buñ ko wanee la nga image yi xamante ne moom la weesu woon mu mën a fiyeex yooyu mais ñun nga xamante ne ay jéeg yàgg nañu ci sëy macha allahu rabbi tamit ñu xam ni ñuy téyee suñu kër yi rek te xam ne tabaski comme niñ ko waxee benn fan la rek ngeen bañ ci sonal seen borom kër yi ba bu subaa bu jotee lu ñu am lu ñu dépensé ndax suba mi ngi lay xaar comme ni ko Zeynaaw waxee boo tabaskee tey xamal na suba mi ngi lay xaar ginnaaw suba mi ngi lay xaar añ ak reer ak ndékki moom tabaski que day passé mais añ ak reer ak ndékki du passé loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax di ziar képp koo xamante ne nag yaa ngi doon ànd ak ñun ci émission yi di ñu topp di lundi au jeudi nga nga xamante moom mooy émission yi ngeen doon ci ànd ak ñun mën na am ñu wax fi loo xamante ne jaaduwul buñ ko defee ñi ngi leen koy jéggalu ci bés bi ndax tey bésu baalu àq la ñi ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax a baax a baax di baalu àq képp koo xamante yaa toog du ñu seetaan di jaajëfal suñu kilifa gi toog Seydal Hadji ni mu ko waxee waral heure bu ñu defee émission dinañu woo nañu nangam ak i nangam te lu mu ñu wax dañu koy def ndax suñu kilifa la borom xel bu rafet la macha allahu rabbi di ziar kilifa gi mara di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal xajjan mabruur zanban maghfuur waaye saayan mashkuur yàlla na ko ko yàlla defal ca makkatul mukarram moom moog ña bokkandool aj foofu yëpp ñi nga xamante ne ñoo yor tamit animation bi ñu ngi leen di ñoom tamit di leen sant macha ñuy jàppale ci liggéey yi ba nga xamante ne ba mu mën a yemb ñu ngi leen di déwénal di leen baalu ak yi ñu ñu bokkal kër gi di leen ko baal waaxiru daawana anil hamdulillah waaw man de sama ñaw ki ko ñaw tailleur Bessél bi nga xam ne moo nekk si télé bi mi ngi nekk sama koñ Scat Urbam moom moom moo ma ko ñawal moo génn ak man fii comme sama ñaw dafa kii parewul ma ne ko léegi jox ma bii rek ma sol amul problème non bi ma pare programme woon pour ñëw ko parewul mais xam naa bu alaaji mara dee ñëw rek ma aj sama musóor daf daf yëfi aawa waaw nganale gi nganale gi nganale gi waaw xam naa yooyu mooy affaire ma noo doon sànnee jamra ak yooyu ngay def noonu ah. noo sànnee jamra ca minam waaw waaw xanaa wàññiwul dara de ah, laaj ko alaaji noo sànnee jamra ca minam <laughs> mais kontaan na Seyda Aminata Zeynabu ñoo gën a bëgg sant dama leen di conseiller ngeen góorgóorlu uh-huh. milieu yu mel nii bu ngeen ci dajee ngeen nekk ay jigéen ñu seeni i kilifa lañ mm, dëgg la dangeen di ubbi seen xol mm-hmm. ngeen bennoo te yaatalante te mm. bëggante dëgg la kër gi mën ngeen fi am référence ni dara jarul xëccoo dëgg la ku ñu tuddee dëggeen chimère mm-hmm. baabu xamoon ngeen ko mm-hmm. fii la nekkoon dàqu leen ko sañ-sañ ëpp leen ko aura gënu leen ko ne kilifa mm-hmm. ëpp leen ko sañ-sañ bi ko yàlla bëggee jël jël na ko yii ay passager gàtt da ngeen di ànd ak sagu ub am ouverture di baalonte bañ di sànnante xeer ci plateau yi bañ di waxante góor góorlu xam ni yéen kër ga ngeen waroon toog bu ñu leen mayee chance ngeen ñëw am fu ngeen mën a lancer seen message mhm. loolu bu leen ko def occasion bu ndaw na nekk lu rëy ci yéen te ak ubbi seen xol mhm. bëggante bañ a waxante ci ginnaaw yéen waru leen mhm. animatrice bi animé musique wala leneen da war a nekk ay modèle donc ngeen doon ay xale lu leen ci loolu mhm. ñun seen i kilifa lañ heure bu ñu gisee lu ñu war a orienté ci yéen mhm. daañ ko orienté fii bu nu fi toogul woon mën ngeen ñu fi wuutu parce que mate ngeen ko ci lépp mhm. mais bëgg nañu kontaan nañu leen di encouragé yal na yàlla dolli sutura amiin amiin yàlla dolli taxawaay yàlla barkeel leen jàppale leen bu baax a baax a baax di wax téléspectateurs yi nag euh, depuis boobu ba léegi ñu àndoon ci spécial tabaski bi ma àndandoo woon ak euh, animateurs yi ak présentateurs yi ci télévision bi depuis bi ñu commencé ba nëgën yi ñëpp jaar nañ fi waaye nag ma ànd ak suma ay rakk yoo xam ni dëgg-dëgg aatu ñu ngi lay wax ni télévision bi kontaan na ci yow yow jàmbaar nga ban kàddu ngay tàggoo balaa may bàyyi ngeen tëj aatu salaamaaleykum taala wa barakaatu ah, xanaa kontaan am mbégte bu baax ci bisu tabaski gi xamante dundu nañ ko ci jàmm ngoon gi ñu fas ne doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbir nu Seexul Xaddiim di leen sant bu baax di ñaanal sëñ xaal Basiir mu yàgg fi lool tànn deg wér ak sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak njabootu maam borom Tuubaa yëpp di am kontaan bu baax maanaam ci dalal gi ndax daje nañ fi spécial Korité wax dëgg yàlla ñu gis la nga doon ku baax doon ku yaatu ak yaa Zeyda yi toog ak ñi fi jot a jaar ñëpp yàlla defal leen jàmm. kàttan na leen di ñaanal Seydina Cheikh Omar tamit yàlla dolli taxaw ko ndax suñu demee ba am fii kër yàlla mi ngi ko jaarale ci soxna. Gagne Siri soxna Gagne Siri doon ku baax ñi ñaanal leen yàlla yàlla taxawu leen di sant ñi àndal bu baax a baax di suñuy xarit lépp sëñ Moussa mii ñu bokkal plateau bi jóge ba Thiès moom it suñu xarit di suñu lépp nga xamante ni daanaka mook suñu rakk guddeeg bëccëg ñooy ànd mu doon moom it jëmm ju baax baax sëñ Fallou Mbuub mii tamit jóge ba Touba yëmbal. Mhm. sëñ ma Ngom mais moom duñ ko présenté. àdduna ndax ku ne xam na ko mu doon jàmbaarul waaye maa ngi moom benn lañu. Ismaila Kazalika Souleymane ak suñu rakk. ñi ñëpp jóge ba Thiès yàlla na leen yàlla defal jàmm. tabarakallah ah. Moussa lan ngay tàggoo balaa ñuy yëkkati jotaay bi. di Seydina Mohamed. Uh-huh. sant suñu yaakaar Cheikhul Khadim di am mbégte lool nag ci plateau bi am solo bi. wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla baax di delloo ni ko suñu aatu waxee rek di siyaare. mboolem ñu fi teew ñëpp ñu fi jaar ñëpp di ci jiital sunu xarit sunu lépp euh, di boroom xam-xam bu sell muy Xaaji Malick euh, Diop wax dëgg yàlla di koo xam ne ne mën naa ne ginnaaw yàlla lu ñu am fi bi lu ñu fi am ci barab bi rek ginnaaw yàlla ci moom la ko yàlla jaarale muy ku baax di sunu mag di sunu kilifa di sunu lépp ci yaatalam ak ci woyofam mais jàmbaar nga li lay doyee da nga ko mën yaak aatu yëpp dëgg ngeen ko mën macha allah rabbu su ko defee choix bi nekkul choix xamee dëgg la choix wu li ñu leen doyee da ko mën dëgg la yal na yàlla dëgëral seen taxawaay na yàlla yokk xam-xam bi di beral nu ñëw baax nag yëpp yàlla mm-hmm. ah, wax dëgg yàlla ñu ngi teew ñu ngi bàyyi xel bu baax baax liggéey bi tout le temps fu nekk ci Sénégal dañuy bàyyi xel télévision bi macha allah ah, rawatina spécial tabaski bi ñu ngi ñaan lañ fi def ci yàlla dafa ngërëma yàlla mm-hmm. ngërëm yonte bi di ñaan yal nañ ko teew yaat Eh, di sant ñi ma àndal baax. loo comme ni maa ngi ci ñaari soxna. Hmm, yaatu yow. yëkkatil micro bi nga ne maa ngi ci benn. waaw ah, fi mu maa ngi ci benn maa ngi sant sama soxna bu baax tamit. Ah, kay waaw. di ko ñaanal bu baax ndax. taxawaayam sell na macha allah. da takk ñaareel wala doo takk ñaareel. waaw man damay takk ñaareel ba ñeent. moo xam na lool sax incha allah waaw waaye koy sant di ko ñaanal ku ma jàppale la mais yow saas nga est am nga caaj am na kuy wut saas am caaj yow nga caaj seeta <laughs> man man jàng yow est-ce que am nga caaj wala wala wala wala se euh, <laughs> man daanaka man jànkatu xasaat bi xaw a yambare laa rek <laughs> jërëjëf sëñ Malick jërëjëf ma maa ngi sant sama maa ngi sant maa ngi delloo sant samay soxna rawatina sama soxna si ma bàyyi ko fii ci Dakar waaw ndeysaan ñaareel baa aw baa ngi Thiès di ma seetaan maa ngi leen sant ah, moo nekk Dakar waaw sant baax macha allah di sant gars yi ma àndal nag comme bëri nga tànk Dakar nag <laughs> waaw xanaa liggéey <laughs> yi ma àndal nag bu baax sëñ Souleymane Ngom sama rakk moom it ci liggéey bi jërëjëf sëñ Baye Mass mi ak mboolem sëñ Abdou li wax ci moom rek loolu moo ne ci moom ku baax la moom it ku yaatu la ku mën a jàng la ku baax la ku yaatu la ku yaatu la suñu aaro ñu ngi bëgg ci yow di ñaan lii yal na ko yàlla saxal amiin ya rabbi télévision bi yal na ci yàlla def barke amiin amiin yéenay tëj jotaay bi nag gërëm bu baax suñu kilifa le PDG monsieur Youssou Ndour gërëm ki mu dénk TFM religion muy Seydou moom moo nekk directeur bu TFM religion euh, vraiment tamit engagé ci liggéey bi bu am solo euh, rawatina nag gañ siri mi nekk ci production bi ak coordination bi mais nag gërëm ñi nga xam ni dëgg-dëgg infatigable lañ ñoo xam ni duñu sonn te sax ku comprendrewul da ngay defe ni liggéey bi gis nga euh, horaire bi ma takk nii léeg-léeg ñu jubbanti sax ci biir émission bi parce que nit bu toogee bay def dara il faut que mu soxla ñu ko jàppale léeg-léeg ma wax loo xam ni ci ñoom la jógee tabaarakallaahu Ibou Diouf ñu ngi lay gërëm gërëm bu baax Yaxya nga xam ni ñi ñëpp miin nañ ko ci enregistrement yeeg émission direct mu nekk TFM religion gërëm baax Ismaïla moom nee naa ko temps yi sonn nga <laughs> yaak Ibrahima Ibrahima rey na Ismaïla <laughs> mais Tabaski tëddee noonu gërëm bu baax nag euh, Amadou ci réseau ba ak euh, Ibou ak euh, Dominique Augustin <laughs> Laasana Gansiri ak Ibrahima ci montage bi gërëm papi Zeynab moom wax loolu de moom wax papi mbaa du papi dafa am caaj papi dafa am caaj ah, waaw papi ah waaw papee nga fa kon papi Zeynab mi ngi lay nuyu di la gërëm bu baax nee na naa la ko nuyul kontaan na ci yow su ko defee nag gërëm na ñëpp sant ñëpp eh, miin ngeen ñu ci télévision bi may waxaat téléspectateurs yi am na émission boo xam ni ñu ngi ko tuddee diine ak xew-xew incha allahu naa na ngeen ñu ci séntu nga xam ni émission yëpp am na solo waaye bi ñu kilifa gi wooyee def ne président Youssou Ndour moo ko sant loolu mu dénk ñu ko ñu ko fi tax comme ni leen dénkee lépp ñu ñaan sunu borom télévision bi ku ko seetaan di nga gis njëriñ donc góorgóorlu leen yàlla na yàlla dolli sutura yàlla dolli taxawaay gërëm na ñëpp aatu na ngeen tëj jotaay bi téléspectateurs yi tàggatoo ak yéen ba déwén ak jàmm gars yi nag bu julli gi weesoo ngeen ñuy xool ci télé ci émission yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sant lii Sëriñ Fallu yi kii woote Tuubaa Touba sant ki wote Touba ñépp ñoo di fi màggal gi fi Touba màggal gi fi fi fi Touba baayu mbir mi ko yaatal tooxal ko Touba ay ku ko fi lim du jeexe Touba kii wote Touba Touba ki wone Touba ñépp ñëw di ci màggal gi fi fi di Touba ndax te kal nanu daa def buur bis ba yeesee fukk la fekk nga màggal ko daa di peesee cant lee tari fan looy ki wote Touba Touba sëñ Touba sat ndawal nga tollol ta wàcce ta lilala ak duru sakata ya li ma def am eh, sëriñ Fallu ay joon ana soppay sëriñ Fallilu fi màggal gi màggal leen sëriñ Fallu ndax te kan nanu daa def bu bis bay màggal ko daa di peese ki woote Tuuba ñépp ñëw defi màggal ci weesu Tuuba fi mi Tuuba sam dawal la nga tollol tawaaj ak duru sa kantaaya li ma def aw

borom jannatul ma'waay ali xabidi lem ku dem noon dem noon kan ne yaddu ci waay am na yoon bu Tuuba luy uras kilimantin banana Tuuba ah, kon kan dañu ci bég ak seen borom mawal ak i xabiigi leen magal leen borom jannatoon luy kaneen lu ci waay am na yóbbu Tuuba luy muraas limatin banaana Tuuba kon safar dañu ci bekk di berne borom jannatul mawal ak i xabiigi leen ku dem ku dem noos muy gànnaar ak i xabiigi leen ku dem noos ak xam bi ngi leen ku dem noonu baray Mamadou Lamine Mamadou Lamine Bara Bara ku la way am ndam baari saxaay wax leen baray Mamadou Lamine Mamadou Lamine Bara Bara ku la way am ndam baari saxaay wax leen yéen waa géej gi yéen waa géej Cheikh Mountakha am na ndam baari saxaay wax leen yéen waa géej Cheikh Mountakha am na ndam baar wax leen jaara jaara ma jaara waay añ nenu te suur